waa Géejawaay alors gars yi ñu bàyyi waa Géejawaay ñoom tam ñu def seen animation ensuite ñu topp processus bi d'accord waa Géejawaay pare ngeen pare ngeen est Ouh ça c'est chaud les Guédiawaye la xàmmee naa leen ça c'est beau ah mais waa Guédiawaye yéen a xewle mais xoolal la jeunesse pure alors Zao Zao Zao kaay booy yi dañoo tàng quoi booy il faut que ñu yëngal leen wax naa leen ci kanam tuuti dina am ay prestation d'artiste dina am aussi prestation asiko dina prestation slam mais aussi dina ay prestation yu exceptionnelle yoo xam ne fii rek ngeen koy gisee man nag li ma gën a neex ci pur li ma gën a neex ci pur li ma gën a neex ci pur mooy foo dem ñoo fa mëne yéen yéen a dàq animation yéen a gën a rafet candidat yéen a gën a jantal candidat yéen a gën a baax programme mais yéen a gën a am engagement engagement bu ànd ak valeur yéen vous prônez la paix et les valeurs dégguma dégguma dégguma dégguma dara mais am na bu ma neex am na bu ma neex ñun kenn fayuñu dañu engagé un deux trois dégguma un ah bon ah dañu engagé mais ma ana waa yëmbal ana waa yëmbal eh, eh, eh, attendez attendez ana waa Tiwaawan la sant ana waa Tiwaawan la sant soyez fédération Tiwaawan loxo yi loxo yi loxo yi pour waa Huh? Wapigina ngok museja ma ne ñu ngi woo artistes yi war a def playback nañu ñëw fii s'il vous plaît na le ma yi war def playback nañu ñëw fii ci karam Mohamed Diop Mohamed Diop Abdallah Mohamed Diop ana Mohamed Diop ana Abdallah Mohamed Diop GD na jigéen si Abdallah Abdallah Baldé l'artiste Abdallah voilà na ñëw nii fii technicien yi nekk ci biir ah ñëw na ah Mohamed ñëw na donc Abdallah moo des ci kanam tuuti dañuy tàmbali animation bi mais Zao voilà Zao dañu bëgg aussi public bi ñoom aussi dañu am une très grande partie ci animation bi comme ni ko asiko yi amee noonu la ko si artistes yi amee mais je rappelle que tey fii ci Géejawaay on se rappelle un quart du siècle fii lañ ko feete woon un quart du siècle fii lañ ko feete woon loola tax may rappeler may rappeler que parti pur bëriwul parti politique bu ko mag fii ci Sénégal loolu nag ñu nangu ko ak ñu ñàkk ko nangu loolu mooy dëgg mooy parti bi nga xam ne ay responsable am du ñu toog di xaar candidat pour mën a def ay rassemblement yéen da na mën a caravane nee nañu dañoo mën a dox dañuy dox ba dugg biir palais waaye tàccu leen ma loolu waay mais dama leen di laaj dama leen di laaj waa parti PUR ak le candidat du peuple Aliou Mamadou Dia mais programme bi nu mu tudd programme bi nu mu tudd mais Zawo ñi mokkal naña ah? mane ne ñii mokkal nañ ko nit ak nit ak eh, dégguma dara nit ak so yes Say yes. Say yes. Aliou Mamadou président loxo yi cinquième cinquième cinquième président et puis et puis et puis xam ga xam nga yéen ñu nekk fii ñëpp kenn rek ngeen bëgg a gis muy son excellence monsieur le président Aliou Mamadou Dia alors il est en route ak caravane bi bu yegsee nag bu yegsee nañu ko tatagal nañu ko sargal parce que moom moo jara sargal ndax moom mooy nekk le cinquième président de la république du Sénégal et Zao Zao si suba wax naa ne si suba wax naa ne sunu ak sunu papa yi ñoom marqué nañ seen histoire waaye ñun jeunesse bi la jeunesse bi BGM pure les femmes pures élection yi la ñuy bindee sunu histoire yaakaar naa yéen ñëpp am ngeen seen carte électeur ñi am électeur seen loxo ca kaw waaw foofu baax na donc donc jour élection yi jour élection yi bu ñu xëddee est-ce que jar na xëdd sax est-ce que jar na xëdd est mobilisation ci centre de vote ñu dem teel a voté midi ñu ne Aliou Mamadou Dia cinquième président de la République du Sénégal loolu laa gëm man eh, man xëdduma tey xëdduma xëdduma donc dimanche amul xëdd dimanche amul xëdd amul xëdd engagement la amul xëdd ana géyeen yi géyeen ak jaween yi rek laa yërëm ko yéen géyeen yi ak jaween yi rek leen laa yërëm alors ambiance ambiance si vous plaît son DJ DJ son i way sàmb DJ jox ma son ma yëngal ñi ci kaw jox ma son ma yëngal ñi ci kaw yéen ñi ci kaw yéen ñi ci kaw yéen ñi ci kaw ay sa DJ yee eh! eh! yee ndu rabbi indépendance Séki Njaay ak Aatu Man Njaay Abu Demba baayu maam eh, aje aram boy maam yaa aatu man njaay abu demba baayu ma ajaaram mooy naan yooyam yaa ba doonu ba baaxe fase moom tanu ni juddu suur dafa juddu ci yaayam alal jamaat seek moom Seydou Assane Ndoye sa baay maam Tanor Ndoye sa maam Njogu mooy sa maam Ganaar mooy sa maam Maya Xaraak Baye Biram waaw waaw waaw sama lebo danga doon mu baax. Aye aje aram Ndoye naam yaa yaa Silla mooy sama Omar Bata Sillaay a Thierno Mbaye Sillaay sama Xëri Mbaye a sama Mata Silla xëri yi joo a waaw waaw aji aram danga doon baax aji aram nooy maam yaayam yaa ca mbaaw njëg na ci géej gi maa yi lébu bay biram ndoy ma yóbbal ndoy bay biramoo bay birama di taaw njoogu di biir maalik njooguy jin njooguy wakkaam njooguy selem ma kuma bii samaam la su ma la wéyalee kafir yëngu su ma la wéyalee kuy ne bu yëngu ngir mbay dem mbaak xuy mbay dem lati dem ba xooy ganaar nooy mooy sama maya xaraak bàyyi biram ndooy ni juddu suur dafa juddu ci lalu yaayam alal jama seek moom waaw yaayu Muhammad Asan danga baax jigéenu Adaat Ndooy jigéenu Cheikh Tidiane Ndooy jigéenu Amet Ndooy jigéenu Bachir Ndooy Maria yi Ndooy sa maam la bandi ngoone sanu la aji aram ndooy yaa jigéen ju man góor yaay Mouhamed Hassan ak Mouhamed Abdallah may xalaat bàyyi biiram ndóoyi mënoo ñaaw ni dundal dundal dundal ak yaa aram ndóoyi dundal waay Amadou Assane ndóoyi mooy sa baay si la xëri jóob nguur ni mbeng yaayi jàll yaa a ñaaw fu la mama ma jaare jël si ndey jël si bàyyi jël ñaari yoon te lébu gi lébu gi day fay de. lébu gi yëngatu na. lébu gi day fay de. ma xam nga sànq maa ngi leen di laaj est-ce que yéen nii. ñi toog nañu jóg taxaw est-ce que sonnoo leen. dafa am ñu bëri ñu toog. ci ah. suuf nañu jóg taxaw. ñi si ginnaaw. ñu toog ci taxaw. toog ci suuf. alors yéen ñi nekk ci ginnaaw da ngeen toog ci suuf xam naa ne heure bi heure bi mu ngi avancé dama ragal sax dama ragal sax ay surprise am ba yéen doo leen tal sax ndogu loolu daf ma wóor parce que kuy ndogu da koy tal mais mbégte am na fu muy toll non doo ndogu quoi da ngay baale xoolal gars yi ñu ngi laaj est-ce que ñu dañuy or dañuy or kay mais engagement bi moo ñëpp doole quoi wax leen loolu quoi alors yéen ñi nekk ci ginnaaw te ngeen toog comme que dañuy tàmbali animation bi te wóor na ma ne artistes bu ñu yéegal fii non ay yëngu lay doon kon nag yéen ñi toog jug leen taxaw ndax image yi gën a nice d'accord Zao sa micro. waaw ma ne am nañu am na lu ñuy wax. ah naan à partir de tey kenn mënul voyager. du loolu à de suba ci guddi. la ñu wax kenn du mën a voyager loolu la ñu wax mais ce n'est pas à partir d'aujourd'hui loolu là c'est pas une bonne information na loolu leer waaw voilà c'est une précision yéen ñi nga xam ne da ngeen jógee feneen ñëw yaakaar ne tey la ñu wax ne dañu interdire circulation bi loolu du information bu baax te man joxe katu xibaar laa su ma leen joxe xibaar ngeen war koo gëm du daa d'accord ngeen voilà xibaar bu wér bi mooy ngeen toog def seen meeting ba doyal boo leen paree ngeen dox nànk dem ñibi waajal nag gannaaw suba yéen ñi nga xam ne da ngeen a dëkk feneen fu dul dakaar suba à partir de zéro heure ci lay ci lay loolu gi commencer circuler te mooy benn oto dootul bouger donc à partir de demee kenn ku ci nekk ci suba gi mën nga dem ci sa dëkk bi nga bëgg a dem voter d'accord donc toog leen ngeen def seen meeting ba mu neex en attendant ma yëgal artistes yi nga xam ne ñëw na lu parce que caravane bi jege si na te bu jege see dama bëgg nag fekk militants yi tàng jër nga xam ne sunu président bu see ñu wan ko ne ko engagement bi tey lay gën a dëggu te jouru élection yi danañ ko wane ci biir bureau de vote yi alors Zao dafa mel ne dañuy tàmbali donc waaw nañu tàmbali animation les prestations am na ay artistes yoo xam ne mention spéciale damay wax ne jërëjëf Serigne Moustapha Sy wax leen jërëjëf Serigne Moustapha Sy gars yi bu mu sedd waay wax leen jërëjëf Serigne Moustapha Sy xam ngeen lu tax Serigne Moustapha Sy amul lu muy wuti lépp la ko yàlla defal bi élection yi tàmbalee wari wuñu ñun ay artistes les artistes engagés sont et ils vont faire des prestations di ngeen ci gis dara léegi léegi alors Zao Zao dañoo war a tàmbali prestation yi dañuy tàmbali prestation yi ak suñuy artistes engagés du parti de l'unité et du rassemblement prestation yu yéeme ngay am Zao ñu njëkk tàmbalee. akan ma ne ana xadi ngoyaan xadi ngoyaan ana mu alors dañu woo xadi xadi balaa muy yéeg na yéeg dañuy rendre hommage le candidat du peuple par excellence parce que am na ñuy woowee seen bopp candidat du peuple mais par excellence kooku la ñu woowee Aliou Mamadou Dia l'homme au profil incontestable. Le candidat par excellence borom programme bu baax bi ki bëgg a xeetali ndaw ñi et sous vos applaudissements Khady venir faire sa prestation maximum de bruit s'il vous plaît gars maximum de bruit pour Khady bir gün Aliou ndax dëgg nag fii moo fi ne bu dimanche balaay heure bi yal nañu wax wiiw merci beaucoup laal nga fu jara laal nag ngoyaan ngoyaan moom fekk yaa ngi koy laal rek yaa ngi fu baax fi Aliou Mamadou Dia doomi Saloum la suñu ko ubbilee ngoyaan c'est très normal parce que doomi Saloum la du dëgg jolof la ndar ndar la waay sénégalais la c'est notre futur président alors damay dalal nag koo xam ne mu ngi jugee ko ci dëkk bu tedd ba foofu nag fu ñu ko tuddee tudd suñu président de parti a Cheikh Seydi Mouhamadoul Moustapha Sy alors ki may bëgg woo c'est un fils de Tivaouane moom moo ñu doon bégal ci caravane yi il se nomme tout simplement Babacar Diop DG Babacar Diop Babacar ana Babacar Babacar alors artistes ñu leen ñaan ñu leen ñaan ñuy kale seeni morceau je demande Abdallah mu créer morceau ana doomi géejawaay yi ana doomi géejawaay yi ana fiisu géejawaay yi Abdallah va venir alors Cheikh Faye demal nga on va faire venir tout simplement le fils de Tivaouane Babacar Diop waaye tàccu leen ko encore une fois bu baax a baax a baax a baax waa tàccu leen Babacar waay gars yi tàccu leen waay tàccu leen waay waaw mais bu baax a baax baax baax maam Babacar Acha. si c'est pur. et du rassemblement. si c'est pur si c'est pur je m'engage. ci kaw loxo yi ah. Aliou Mamadou Dia pat pur jóg leen ñu jàppale Aliou Mamadou Dia loxoy loxoy loxoy ani waa pur joomu kay lu kenn mën ñaara kooko dàq réew mi ñoo bu kenn xeeb sa taxawaay nañ àndandoo bokku kay lu kenn mën ñaara kooko dàq ñi jàpp fii attention waay. waaw borom challenge borom félicitation. DJ bi laay reetaan quoi DJ bi. sama voix bi. <laughs> DJ. DJ. yóbbu ndar. man man maa amatul force wala DJ bi mooy wàññi sama voix. non. man maa amatul force. koor gee la bul tax bul tax yi di reetaan waay. DJ. bul tax nga yéene di ma reetaan yóbbu ma ndar géej alors fii ñu nekk nii Aliou Mamadou Dia Aliou soxna ummi ndaw ummi ndaw caatu biiram ak soxna faatu ndaw mi ñu denc Medina baay ca peggu Cheikh al Islam ba bërëb ci ndey bërëb ci baay yow yaayi ah, sëtu sànneene aram faqaa sëtu dëgën sëtu xoj ak adam juuf séeréer baa ngi ne saalum saalum international fonctionnaire def nga lii sa wareef ah. sama mbiram ndaw avant avant mu wëllëre meew koor waa meer bi dafay tàcculeen meer bi dafay bu baax a baax eh mu di Sénégal nga ci Saalum bokk nga ci Siin bokk nga ci yow yaa di boobu Blodil Togo do Samba Ngaari ci baay di boobu Fuuta ci yaay di boobu Saalum Aliou da neex na leena waa wallaay je kaaju ko kilifa gi moom la wóolu wata jëfar bi dafay waay jikko yi mu lamoo jikko yu zen la Chiri Mayetu Njaay kooku a bay bayam aba cindu kuju cindu ato di maamam yaay cindu gaatu atu ama duma jigéen si la masi la duma njaay ale baaba juma ñam ni dun la kooku kalla mayeto soso mi ngin boy cupe kula geeju sama diwaan waay loxo yi ci kaw kaw kaw kaw merci DJ merci DJ na ko nee na ko bu la neexee wax de Aliou Mamadou bu la neexee wax de ndax sa maam yëpp la ñu naw ci réew mi wallaay su la neexee wax ndax kila la tànn ku mu tànn su ko neexee wax de bu la neexee wax ndax yaa yor programme bi nga xam ne ndaw ñi gis nañ ci seen bopp de bu la neexee wax ndax programme bi nga yor jigéen yi Sénégal gis nañ ci seen bopp de Aliou Mamadou Dia bu la neexee wax uh-huh. ndax candidat yëpp yaa ci ëpp expérience uh-huh. ci wàllu développement uh-huh. Aliou Mamadou Dia bu la neexee wax ndax candidat yëpp yaa ci gën a rafet yaa ci gën a boo eh. yaa ci gën a jantal eh. yaa leen gën a nekk intellectuel yaa leen ëpp expérience Cheikh Faye waaw ñu woo Cheikh Faye Cheikh Faye Cheikh Faye la ñuy woo alors Cheikh Cheikh Faye depuis Kër Massar l'homme de Kër Massar notre artiste préféré celui qui a chanté ñëpp daal di noppi waa ji booy bu aay la booy bi day nekk ci ruq yi di way gars yi duñ comprendre maa ngi ko njëkk a découvrir bi mu woyee Aliou Mamadou Dia mais il est exceptionnel ce dama bëgg ngeen tàcc ko ba mu yëg ne waa parti PUR kontaan nañu ci morceau bi alors su ñëwee taxaw boo leen ko xoolee di ngeen ko xàmmee ci TikTok bi su ñëwee taxaw mun a goo leen comprendre ban way lay way waaye bu way bi ne tàng tàng tàng tàng dinaa gis ay géyéen yoo xam ne dañuy simi seen dàll tàccu leen l'homme de Keur Massar da ngay acapella ah acapella leen tuuti rek deux secondes comme ça ñu comprendre ban way ngay way asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen ñooñu xanaa koor gi da a jàpp yëngu leen ñu yëngal AMD moo fi moom moo fi ne dama ne ah DJ DJ may ñu DJ DJ s'il vous plaît s'il vous plaît s'il mani kii bu ñu rëccee dinañu mat baaraam eh, dégguma dara dégguma mani kii bu ñu rëccee dinañu mat baaraam allez DJ ñu dem ah pour gagner du temps ana ñu bëgg AMD dañu wóoloo waaw. maire profil maire parcours ñoo ko fa maire candidat Aline Mamadou Dia maire programme maire appareil politique. Merci. Merci beaucoup l'homme de Keur Massar. Eh eh loxo ca kaw. Gaay loxo bi ana Moussa. Boy bi. Boy boo leen ko teewul. Boo teewul boy bi. Ah baax na. Tàccu leen noo ko bu baax a baax a baax a baax. Alors. Maamar Mbodj. Maamar. xam nga nag dëkk boo dem am na boroom fii ñu nekk nii daa am boroom waa Kër Massar ñoom ñoo joué léegi waaye nag ñoo ngi fii ci Géejawaay te bu ñuy wax animation bu ñuy wax caravane bu ñuy wax engagement bu ñuy wax animation asiko faaw nga bàyyi xel waa Géejawaay ala waa Géejawaay Abdallah L'artiste, l'exceptionnel, le phénomène, va faire sa prestation. Tatulel Boubar, Abar, Abar, Abar. L'artiste Abdallah, l'artiste du pur, parti de l'unité du rassemblement, le phénomène, l'exceptionnel. Mais boy bi, boy bi, boy bi boo leen ko teewul. gars yi dinañ bàyyi way de parce que mi dafa pare. moo tax looy def jàng ko Abdallah c'est une école alors l'artiste Abdallah maximum de bruit s'il vous plaît pour Abdallah s'il vous plaît maximum de bruit waa maximum de ana waa Géejawaay si c'est pur gaay déggu mu leen de si c'est pire je m'engage même bu dee ay man bëgg naa la bëgg naa ba pare ñu baal ma ko bee xaw a dee xaratuma ñu may woo may woo piir la bokk piir la bokk bul di xaar yow ma woo piir nga bokk piir nga bokk dirima dirima dirima yee dirima di door bëgg naa wax ma lu nekk tawuma ma gong pam pam pam bëgg naa parti biir ba pare ee eh, Aliou Thiaw waajalal bi ay boro yes Amina waa mais gars yi kontaan ngeen ah boo leen yee yee merci beaucoup waa Guédiawaye Abdallah bonne continuation Amina alors mais Amina waxal ma dégg parce que yow sa voix daa doy waar ah bàyyi la gars yi. waa def mbaa yéen a ngi DJ DJ est-ce que may soowu Abdou Guité bi ma xool nu ngeen tooge après ñu dem d'accord ngeen Aïcha waaw maam Omar oui salaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah di yëngatu dégg ngeen gaay loxo yi loxo yi gaay loxo yi gaay Cheikhul Islam ba aywa aywa ci baay yow yaay sa tudd sa mene aram fata sa tudd dëggan sa tudd Adam Diouf Marinoya. ¡Ah! International fonctionnaire def nga lii sa wareef. sama mbiram ndaw avant mu dëjee ndaw. wala koor juufee buuru Zimbangi. yow yaa di borom doo di toroon sama ngaari. Ah. imam ya daggaji. yaay di borom Saalum Aliou ja neex na leena yaa wara yi kakkaaju ba kilifa gi moom la wóolu doy loo ko nam loo jikko yi mu lamboo jikko yu seen la Chiri Mayeetu Njaay kooku a bay bayam abba cendu ko jur cendu atoo di maamam yaay ceddo baatu atu ama duma jigéen si la ma si la duma njaay ale baaba nag ba ci caajaay alxuraan bi taalibe cheikh bi am na am personnalité am na itamit kii daal mu mën Diop est demandé ici pour faire un salam sur le candidat le plus compétent, le plus élégant, le plus charismatique, le candidat, l'homme de la révolution, l'homme de la rupture, l'homme du changement, l'homme du développement, Aliou, Aliou, cinquième, cinquième, cinquième. cinquième président voilà. salaamaaleykum. Sad Amadou Bari de Guédiawaye. déggoo leen ma. ma essayé. tey ma woo la. tey ma woo nekk jël. na nekk jël kenn. merci beaucoup maa ngi nuyu ñëpp. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mohamed Ibn Cheikh, le slameur Nongodar, le slameur autrement dit le de l'Est, l'Ouest, Nord et Sud. Salam alaikum Guédiawaye. waaw waaw yéen waa PUR de xam ngeen seen programme programme PUR nu mu programme Aliou Mamadou Dia nu mu d'accord on va slammer sur nit ak naataange d'accord de à nos jours chaque candidat a son discours des théories sans pratique vraiment pas d'effet 63 ans passés les Sénégalais ne sont pas satisfaits pourtant on les donne toujours nos électeurs élire des beaux parleurs voleurs et malfaiteurs on en a marre oui on a marre de confier notre pays à des dealers dealers que rien ne sera plus jamais comme avant il est temps c'est maintenant le changement nanu sang réew mi nanu sang réew mi ci nite ak naataange réew mi laaj ñu sang ko ba mu set wecci sang réew mi ci yemale ñëpp ñëpp booloo doon benn bennoo alalu askan wi fu muy dugg dafay leer ànd jub jubal jubbanti réew mi ba mu tegu ci yoon wu leer wala xadd karam naa ba nii aadam awa lii rek doylu ñu respecté doomu a dama yi respecté seen ak ak yéleef même bu dee ca nungu siin la nekk dama ni et eh, bul fàtte bul fàtte bul fàtte ku bëgg a defar réew da ngay defar nit ña nit ña defar réew ma ngir defar nit nag dafay laaj préparation waaw préparation ci éducation ak formation retour à nos valeurs et tradition et surtout bien sûr retour à notre culture waaye toppatoo nit ki jàppale ko ci jàggam ak yaram toppatoo leen jàpp leen itam ci seen wér gi yaram sénégalais sénégalaise nit nite defal sax xel mooy làpp bi ngay niitee jëm ci naataange ngir dund ci kaaraange nañu wut tànneef tànneef bu xam bu baax la muy def ak la mu war a def tànneef buy wàllu sunu gaal gi tànneef bu yemale askan wi toppatoo càmm gi ak napp tey suuxat mbay mi taxaw temm temm temm ci waa ji yi mais mbokk yi mais mbokk yi mais mbokk yi faw nu wax faw nu wax am taxaw sax ci état de droit ndax am réew mënu la avancer sans ñu respecter ses lois respecter les personnes laissez-les avec leur soi réew mi du royaume monsieur le président n'est pas un roi donc la séparation des pouvoirs et la bonne gouvernance et la justice doit justement retrouver son indépendance mais l'équilibre des institutions et la dépolitisation de l'administration mais par le souci de l'inclusion et la protection sociale woy laago bi ñàkk mën a dox warul tee ñu boole ko ci ñuy doxal boole ci mag ñi itam nañu leen bàyyi xel néew di doole yi néew doole deewu leen doon doomi réew mi jàppal leen dafa yell mais par le souci de levier d'accélération l'innovation et la digitalisation mais le partenariat j'explique j'amène ce que j'ai tu amènes ce que tu as et on fait gagnant gagnant mais attends ça commence localement et le financement Attention, là où Paul va et l'accès 100% à l'énergie pour développer notre industrie en passant par ces réformes comme le Conseil supérieur la jeunesse. lu am solo ngi noonu ndax njëriñ daf ci fees bu amul doo mën nga dégg développement ba yegg ci durable réforme la pire woote ak le conseil des sages kenn dootul dundee l'argent du contribuable mais c'est et c'est dommage le cas des ndongo daara imaginez nga ñàkk ba noppi ñu bëgg laa yemal ci laara franchement il est temps oui il est temps de professionnaliser les daara alors unissons-nous pour le changement avec l'homme de développement let's go go didi tati nay nay leer ndax piir a raw ceeñeer moom mooy lamp bi nit defar nit bu nit ba noppi fal njiit njiit wa wane yoon naataangewu yemul rek ci ay këyit réforme lañu woote bu ko kenn wuute 2, 3, 4, 444, 4 piliers, 4 leviers, 4 réformes phares pour réformer le Sénégal et dire aussi quatre piliers, quatre leviers, quatre réformes phares pour réformer le Sénégal et dire aussi qu'il est grand temps que le Sénégal devienne une priorité au Sénégal. Avec le président Aliou Mamadou Dia, Monsieur le président, on fait confiance. Tu as la connaissance, l'expérience, les compétences. Cher candidat du peuple, excellence. Alors, amul sigg amul sagu réew mi war a sangu monsieur le président sigil sagal sa askan waaye yéen tamit jot nañu tànn kiy boole te du jaay doole kiy doxal nit ak naataange slaaw merci merci ngeen baal ma Mohamed ngeen baal ma maam si vous me le permettez ma lancer benn message à tous les jeunes dama am habitude di wax je suis l'ambassadeur des générations mille donc yéen jeunes yi particulièrement génération 2000 soyez conscients dimanche bii ñu jëm incha allahu dimanche la bu particulier ci histoire du Sénégal lu musta am ci Sénégal moom moo am pour une première fois dans l'histoire Sénégal di choisir son président Sénégal di élire son président yi fi jàll yëpp dañoo am habitude ñu nettali naa ñu lañ doon folli cette fois ci nag dañuy fal suñu président xool leen les trois P le profil parcours et programme te jàpp naa ne gannaaw ba ñu xoolee yooyu bu ñu duggee ci urne yi bulletin yi fa baax bëri na waaye tànn boo gis tànn bu ca gën da caa gën bi gën nag mooy bi am ñaari picc yu jàkkaarloo te mu vert salaamaaleykum voilà merci Mohamed c'est ce bulletin qui va sauver le Sénégal c'est ce bulletin même qui va mettre le Sénégal sur les rails du développement. C'est avec Aliou Mamadou Dia que le Sénégal verra le développement. Donc, merci, merci Mohamed. Donc, d'une minute à l'autre, le président Aliou Mamadou Dia sera là. cortège bi départ na Aliou mi ngi ci yoon bi léegi mu yegg si ànd ay ganam mais aussi gars yi dama bëgg ngeen def essai euh, ngeen def euh, ngeen tàcc bu baax a baax ngeen tàcc bu baax a baax suñu alliés yi ngen tàcc bu baax a baax suñuy alliés voilà standing ovation pour nos alliés pour Bruno Derneville pour Cheikh Alassane pour El Hadji Amadou Samba pour les mouvements pour les associations on rappelle que la coalition AMD 2024 est composée de plus de 80 partis, d'associations et de mouvements politiques qui ont fait confiance à Aliou Mamadou Aliou Dia Didier jigéen ñi bëgg. dundu gu gën ndaw ñi di xaar. lu askanu Sénégal lu ngeen di xaar ci njiitu réew mii di ñëw. dundu gu gën. dundu gu gën ak Aliou Mamadou Dia. dundu les mouvements et associations qui ont fait confiance à Aliou Mamadou Dia pour la candidature, mais aussi pour ce présidentiel du 24 mars, Inch'Allah. DJ. ok jigéen ñi bëgg. lu ndaw ñi di xaar. lu askanu Sénégal mérito. dund gu gën lu ngeen di xaar ci njiitu réew mii di ñëw. dund gu gën. dund gu gën ak Aliou lu jigéen ñi bëgg. lu ndaw ñi di xaar. lu askanu Sénégal mérito. dundu gu gën. lu ngeen di xaar ci njiitu réew mii di ñëw. dundu gu gën. dundu gu gën ak Aliou Mamadou

pur bi ñu ngi fii ak bi donc ñun sunu waaw bu ñu paree euh, dinañu am allocution d'ouverture par le secrétaire général de Guédiawaye monsieur Khalifa Cham après dinañ la présentation des nouveaux alliés par monsieur Cheikh après di ngeen am ci écran yu yanji yi retour en image Mamadou Dia. Dundu gën ak Aliou Mamadou Dia. gën ak Aliou lu jigéen ñi bëgg. lu ndaw ñi di xaar. dundu gu gën. lu askanu Sénégal mérito. dundu gu gën. lu ngeen di xaar ci njiitu réew mii di ñëw. dundu gu gën. dundu gu gën ak Aliou Mamadou Dia. dundu lu jigéen ñi bëgg. lu ndaw ñi di xaar. lu askanu Sénégal mérito. dund gu gën. lu ngeen di xaar ci njiitu réew mii di ñëw. dund gu gën. dund gën ak Aliou Mamadou Dia.

omettre oh, euh, liiral leen le chronogramme mais pour le moment il y a le un des alliés pour ne pas dire le seul allié un des alliés du président Aliou Mamadou le président Cheikh Alassane Sène on vous demande de faire un maximum de bruit gars yi du bruit pour un maximum de bruit pour le président Cheikh Alassane Sène ñu ndaw caatu biiram ak soxna faatu ndaw mi ñu denc Medina bàyyi ca peggu cheikh al islam ba alors maximum de bruit pour le président de la conférence des leaders Cheikh Alassane Sène plus monsieur Cheikh Alassane Sène ci ci bi mais aussi ci taxaw bi ci caravane yi ci moyens ci merci Cheikh Alassane pour ce choix ce choix de la raison ce choix réfléchi ce choix responsable merci. tàccu ki nga xam ne Omar. oui moo décidé le président Aliou Mamadou Dia. effectivement sans condition. Mhm. ak allié yi mu àndal ki nga xam ne ànd na ak Aliou ak yeneen allié yëpp durant toute la campagne électorale. ci forme yëpp nag moom laay wax. merci le président Cheikh Alassane Sène. nommé président de la conférence des leaders par le président Aliou Mamadou Dia engagé à votre côté sans condition. sama gars yi loxo yi ca kaw ko bu baax a baax. jërëjëf Cheikh Alassane Sène jërëjëf ci choix bi merci pour ce dama leen di dollil dara ci coalition Aliou Mamadou Dia 2024 am nañ ci dix partis politiques dix partis politiques yoo xam ne ñoom it comme le président Cheikh Alassane Sène dañu ñëw engagé wu à votre côté am nañ ci tamit ay mouvement nous avons 102 mouvements ñoom ñëpp aussi engagé wu ci biir coalition bi sans condition gaay ñu tàccu leen bu baax a baax a Merci, merci à nos alliés, merci pour ce choix, merci pour ce choix justifié et justifiable, merci pour ce choix de la raison, merci aussi pour ce choix de la réflexion, merci pour tout. yéen ay alliés yi wóor ngeen ñii ñooy alliés yu baax yi ñii ñooy alliés yu i yi ñii ñooy alliés yu baax yi ñii ñooy anti système bi ñii ñooy xeex système bi voilà merci à Alors, ah nos chers Omar, alliés. le président Cheikh Alassane Sène tout le stade Amadou Barry ñu ngi lay souhaiter bienvenue ak ñi nga àndal ñëpp. léegi nag nee naa leen am na lu neex lu ñuy waajal mooy lancer des ballons da bëgg ñu def ko léegi wala ñu xaar yéen la des yéenay chef. ñu def ko léegi ñu xaar. Ah. non kan ngeen di xaar. <laughs>

di ni baaraam wi ca ni ngay voté l'injustice def ci réew moom ngay mani kii bu ñu rëccee dinañu mat baaraam wicca comme si c'est pur zamangas gars yi déggu ma leen déggu ma leen gars si c'est pur zamangas réew mi réew kan mooy ñëw noonu kii mën a yore kan mooy yegg si kan mooy yegg si gars yi kan moo ñëw gaay Lobé la ki ñu doon président est là Aliou Mamadou Dia est là le compétent est le sérieux est là l'élégant est l'homme charismatique est la solution est le développement est là gaay loxoy ci kaw gaay le président Aliou Mamadou Dia de de qui Akobi oui Amina hymne national bi hymne national bi ñu waaj ko le président Aliou Mamadou Dia et Le président est là. Les légat est là. La solution est là. L'homme de développement est là. Le charismatique est là. L'homme de nit ak est là. Le président Aliou Mamadou accompagné accompagné de Mame Cheikh capitaine. Ils Ils sont tous là. Le changement est là. L'histoire se dessine. 2024. Oui. AMD mon choix Ali Mamadou Dia la victoire si c'est pur je m'engage li teg naataange mooy ñu programme say nelaw jeex na jëf moo dees beneen Sénégal bu wuuteeg bii 25 dañu koy matal par pièce nanga nga fexe doon électeur sa carte daas ko sa kalpe jóg ca ba muy teel votel pur ñu nag Ali Mamadou Dia la ba biir palais Sénégal ngi bëri ay koom-koom kuy defar lañ bëgg gañ dañ jaayam ni ak bëri xam-xam jox ko noppay dëgg yàlla fu nit jàpp ba muy teer ak lay sàmm naa tàngi réew merci Président est là l'homme de 24 mars est là Aliou Aliou Mamadou Dia président Aliou Aliou Mamadou Dia. Eh. Aliou Aliou Mamadou Dia. li rafet na sama gars yi. soit on gagne ou on gagne. on gagne on gagne soit on gagne ou on gagne. jaajëf waay. gars yi déggu ma leen de. ndax sa mbaax ak sa taalibe. ok. may la te ku ko tooñ mu jéggi. c'est ça le but c'est ça le changement le changement est là merci Pape Cheikh Sarr. munul dem bàyyi sa morom defar nit ku naataange saawaan baawaan moo ne ci xolam dox jëm 2024 c'est maintenant ou jamais ku ko mën a ku koy jéem non non non munu ñooyam dinañ la fal Aliou Mamadou Dia. monsieur Birido der na ville. ci président le parti pur ak Aliou Mamadou Dia ku la waayoo am na waay tukulóor Ali Racine dafa réew mi nga woote développement sur les problématiques yow doo koy teru leen ko teru leen ko sargal leen ko sargal leen kii on gagne soit on gagne ou on gagne on gagne

la surprise la surprise est la surprise est la surprise est là Serigne Moustapha le président du PUR, le PUR, la solution avec AMD. Ils sont là, les amis. Ils sont tous là. L'homme de développement est là. La solution est là. DJ euh, dañ lay ñaan nga kaleel ñu hymne national du Sénégal nga xam ne buñ la ko laajee rek nga dawal c'est bon kaleel ñu ko c'est bon ok Mamadou Dia. Mamadou Dia ak Aliou Mamadou Dia lu jigéen ñi bëgg. lu ndaw ñi di xaar. lu askanu Sénégal mérito. dund gu gën. lu ngeen di xaar ci njiitu réew mii di ñëw. born blue, dear to what was on the guy. Uh, she by the born food, the G. I. the born saddle. I live the Nechnalena. You know what I need? Can you forgive my loan? No, the lock on the law. You could you lambo. You could use it. She my head to yai. Kokwa bye bye. Um. Abachindu kuju. Chindu ato di manum. Yai chedogatu. Asuwaana duma jigéen si la naa si la duma njaay ale baaba juma ñam ñi gën la Mariyeetu soso mi ngi mooy cupe kunda géeju sama diwaan Aliyu jël taalibe waawale moom la ñu doon Elaaji Mamadu di baayam imaam bu ba ci jaajaay hafizu alxuraan bi maa kontaan ngeen est-ce que kontaan ngeen alors dañuy remercier notre président le président du parti PUR Serigne Moustapha maximum de bruit pour Serigne Moustapha alors nous sommes très honorés kontaan nañu ci déplacement bi di remercier notre cher capitaine di remercier toute la famille de Serigne Moustapha Sy di remercier encore tous nos alliés et di remercier tout ce beau public maximum de bruit pour Serigne Moustapha Sy sama gars yi sama dañuy dañuy ànd ak déggoo on va laisser quelques minutes au président Aliou Mamadou Dia le temps qu'il fasse sa déclaration avec la RTS donc dañ leen di laaj rek ngeen teewlu ñuy déglu parce que li mu wax seen njëriñ la sama njëriñ la sunu njëriñ la président à vous l'honneur

lu jigéen ñi bëgg. lu ndaw ñi di xaar. dund gu gën. lu askanu Sénégal mérito. dund gu gën. lu ngeen di xaar ci njiitu réew mii di ñëw. dund gu gën. dund gu gën ak Aliou Mamadou dund gu gën ak Aliou Mamadou lu jigéen ñi bëgg. lu ndaw ñi di xaar. lu askanu Sénégal mérito. dund gu gën. lu ngeen di xaar ci njiitu réew mii di ñëw. dund gu gën. dund gu gën ak Aliou Mamadou Dia. dund lu jigéen ñi bëgg. lu ndaw ñi di xaar. dund gu gën. lu askanu Sénégal mérito. dund gu gën. lu ngeen di xaar ci njiitu réew mii di ñëw. dund gu gën. dund gu gën ak Aliou Mamadou Dia. dund lu jigéen ñi bëgg. lu ndaw ñi di xaar. lu askanu Sénégal mérito. dund gu gën. lu ngeen di xaar ci njiitu réew mii di ñëw. dund gu gën. dund gu gën ak Aliou Mamadou Dia. dund lu jigéen ñi bëgg. lu ndaw ñi di xaar. lu askanu Sénégal mérito. dund gu gën. lu ngeen di xaar ci njiitu réew mii di ñëw. dund gu gën. dund gu gën ak Aliou Mamadou Dia. dund lu jigéen ñi bëgg. lu ndaw ñi di xaar. dund gu gën. lu askanu Sénégal mérito. dund gu gën. lu ngeen di xaar ci njiitu réew mii di ñëw. dund gu gën. gën ak Aliou Mamadou Dia. dund lu jigéen ñi bëgg. lu ndaw ñi di xaar. lu askanu Sénégal mérito. dund gu gën. lu ngeen di xaar ci njiitu réew mii di ñëw. dund gu gën. dund gu ak Aliou Mamadou Dia. dund lu jigéen ñi bëgg. lu ndaw ñi di xaar. dund gu gën. lu askanu Sénégal mérito. dund gu gën. lu ngeen di xaar ci njiitu réew mii di ñëw. dund gu gën. ak Aliou Mamadou Dia. dund lu jigéen ñi bëgg. lu ndaw ñi di xaar. lu askanu Sénégal mérito. dund gu gën. lu ngeen di xaar ci njiitu réew mii di ñëw. dund gu gën. dund gu gën ak Aliou Mamadou Dia. dund lu jigéen ñi bëgg. lu ndaw ñi di xaar. lu askanu Sénégal mérito. dund gu gën. lu ngeen di xaar ci njiitu réew mii di ñëw. lâché nañ ballon yi beneen étape bi pigeon yi nga xam ne ñoo nekk ci logo pur ñoo ngi fii ak ñun ci stade bi donc bu fekkee pare ngeen yéen ne woon da di xaar pare ngeen wala parew leen aca où sont les pigeons Malick de quel bi pare na go kon ñu dem ci hymne bi après on fait voler nos pigeons l'hymne national s'il vous Alô, alô. Alô. Alors, sans plus tarder, alors les pigeons, lancer des pigeons de l'autre côté, un peu partout dans le stade.

avec l'allocution d'ouverture par le secrétaire général de Guédiawaye, monsieur Khalifa Cham. du bruit pour monsieur Khalifa Cham, du bruit pour monsieur Khalifa Cham. Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président du parti, cher Seydou Mohamedou Moustapha Sy, Monsieur, cher Ahmed Tidiane Sy, capitaine, Monsieur le secrétaire national du PUR, cher Ahmed Tidiane Youm, Son Excellence, le candidat du peuple par excellence, je veux nommer le président Aliou Mamadou Monsieur les élus du PUR, chers collaborateurs, les secrétaires généraux des différents départements, chers alliés qui nous ont accordé leur confiance, distingués invités, le mouvement des femmes et seigneurs du PUR, la jeunesse pure,

Chaque sens, Guédiawaï l'a compris, et pourquoi tous les militants et sympathisants du PUR se sont donnés corps et âme durant ces campagnes et vont continuer à se battre jusqu'à l'accessoire à la présidence de Ali Mamadou Dia au soir du 24 au premier tour. Je vous Monsieur Khalifa Cham. Donc, on va recevoir sur le podium Monsieur Chertidian Sarr. Il va parler au nom des nouveaux alliés. Monsieur Sarr Chertidian. asalaamaaleykum wa rahmatullah monsieur le président son excellence cheikh seydi mouhamad al moustapha si président du PUR éminence monsieur cheikh ahmed tidiane si capitaine et sa délégation Excellence, Monsieur Aliou Mamadou Dia, candidat du peuple, futur président de la République. Chers alliés, présidents de parti, responsables de mouvements, responsable de réseau de mouvement de femmes alliées du PUR asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa ce moment qui nous réunit ici est un moment solennel qui va être inscrit dans les annales de l'histoire politique du Sénégal. C'est une bénédiction que Cheikh Seydi Mohamed El Moustapha Sy a faite au peuple sénégalais. Et je pense que le peuple sénégalais va saisir à sa juste valeur cette bénédiction qui lui est offerte par Cheikh Seydi Mohamed El Moustapha Sy. C'est quoi la bénédiction? C'est d'avoir choisi un homme capable de sortir le Sénégal de cette situation chaotique et difficile dans laquelle le pays et plongé depuis plusieurs années dama waxoon nag ne tànn gi Serigne Moustapha Sy tànn Aliou Mamadou Dia def ko muy candidat du peuple def ko muy candidat Sénégal pour élection 2024 yi war nañ cee sant yàlla ngir ñetti yëf war nañ cee sant yàlla ngir moom mi tànn parce que ki xam moo war a tànn te xam na fi mi teg tànkam ba tànn kii toog ñun ñépp seede nañ ne lu jege cinquante ans il a toujours été du côté du peuple aucun aucun homme politique ou chef religieux amul légité bi nga xam ne ni moom am na ko légitimité la boo xam ne daf ko liggéey sur le plan religieux sur le plan social et sur le plan politique moo tax il veut sauver le Sénégal il veut apporter au Sénégal une chance kon nag nañu am yitte ba saisir chance boobu nga xam ne ni moom la ñu jox kim ñu tànnal ñett dafa daje ci moom mooy bu njëkk bi dafa am profil pour nekk président de la république bu ñaareel bi te bu ma tuddee profil xam-xam baak expérience ba yépp dugg na ci mais bu ñaareel bi dafay borom loxo yu set te réew mi fi mu tollu dañoo soxla ku loxoom set bu ñetteel bi dafa am programme programme bu mën a suqali Sénégal loolu moo tax bi ko suñu alliés yi gisee sur les dix-neuf candidats ñu xam ne moom mooy candidat bi valable pour sauver le Sénégal ñoom ñëpp ñu daw wuyu si ñu kon dañuy remercier la conférence des leaders de la coalition AMD 2024 te ki ko jiite di Cheikh Alassane Sène di responsable coalition ñu tàcc ko bu baax di ci teg son directeur de campagne muy Bruno Derneville nga xam ne aussi président parti la li ci teg El Hadji Amadou Samb responsable politique yore parti politique engagé wu ci cause bi pour jàppale Aliou Mamadou Dia pour la victoire du 24 mars 2024 incha allah ñi ci des la liste est tellement long que duñ mën a lire mouvement yi fi nekk ñi ngi gis Père Alsane Ndoye bi jóge jander force paysanne ñi ngi fi Binta Amar représenté leen ak d'autres formations politiques ak ay mouvement yoo xam ne àgg nañ ci quatre-vingt ñoom ñëpp ñu summeeku ne dañuy jàppale AMD 2024 kon monsieur le président Aliou Mamadou Dia la victoire est déjà garantie bantoo nag la ñuy wax mais de grâce bu mu nekk à la soviétique il faudra laisser quelque chose au moins aux autres candidats ce qui reste à faire maintenant ce qui reste à maintenant mooy kii ñu sëriñ bi tànnal bu ñu rëcc bu ñu rëcc pour la transformation de l'économie sénégalaise bu mu ñu rëcc ndax l'autonomisation des femmes bu ñu rëcc ndax développement bi nga xam ne ni moom la bëgg a indi Sénégal bu ñu rëcc pour la concorde nationale la cohésion sociale bu ñu rëcc parce que nous sommes persuadés que buñ ko joxee réew mi le Sénégal brillera non seulement dans la sous-région dans le continent africain mais à travers le monde entier donc ñi ngi remercier suñu allié yi di leen souhaiter la bienvenue di leen ñaanal yàlla ñu ànd ak ba mu du Dia pour la victoire cette coalition n'est pas une coalition contre nature c'est une coalition basée sur l'éthique et la responsabilité dajale wuñu ay nit yoo xam ne bokkuñu fu ñu jëm dañoo dajale ñoo xam ne dañoo partagé ay valeurs partagé ay principes c' est sens de la coalition ñu ngi leen di sant di leen gërëm barakatu dijee salaamaaleykum na ngeen def waa mbaa fii lépp leer na kon bal ba tàkk ne dijee bu yéexee ci yow la laata kàddu gi ñu biral rekk li nga xam ni toog nañu yàgg ci liggéey lool ngir jëmm ji di lu nekk ci ñun di conseil ci ñun di mag ci ñun di référence ci ñun yàlla booleenu nu démb ta tey dikkut waaye ma ni garab yi ci kaw rek lañuy fekkante ngir jàmmi Sénégal yàlla na yàlla xeb dolli yàlla jàppale nu gunge ba lii ñu def ko ci jàmm ak salaam carte gi leer ñu liggéey Sénégal ndaxte réew mi ñun ñoo ko moom di bu yéexee ci yow la xale yi dañoo bëgg bégee let's go DJ son s'il vous plaît loxo yi waaye gisuma dara de Aliou Mamadou Dia Aliou mu soxna ummi bàyyi yow yaayi sëtu sàndeene aram faqaar sëtu dëgën sëtu xojjat adam juuf séeréer baa ngi ne saalum saalum baa ngi ne alleluya international fonctionnaire def nga lii wareef sa maam biram ndaw mu avant avant mu wëllëre meew koor juufe buuru Sine baa ngi yow yaa di borom doo dil toro sama ngaari ci Tuubaa atuwama duma jigéen si la masi la ale baaba juma ñan jibbalu la ma yettoo sosoo mi ngeen sincérité en personnalité am na yitte yitte kii daal moom mën na yitte. écoute tatu yàlla nga fekkee déwén ñu àndandoo fête victoire bi ay ci loxo yi. pour cette belle prestation. Euh, pour faire vite, on va passer à l'allocution du directeur de campagne, Monsieur Bruno Derneville. Alors, faites du bruit pour votre directeur de campagne. salaamaaleykum mbokku Sénégal. chers amis du pur bonsoir waaw man nag dañ ma wax ne cinq minutes laa am dinaa ci jéem a wax ci français ak ci wolof ngeen ngeen baal ma dinaa kon gàttal ah Je voudrais saluer d'abord la conférence des leaders et son coordonnateur, Cheikh euh, Sen, Cheikh Alassane Sen, saluer notre cher candidat Aliou Mamadou Dia et sa sympathique épouse Marietou et dire mes salutations respectueuses au guide et président du PUR, cher Seydi Mohamedou Moustapha Sy, et un remerciement particulièrement appuyé à lui pour le choix qui a été fait qui a été porté sur Aliou Mamadou Dia comme président de la République du Sénégal, Inch'Allah. Je voudrais présenter mes félicitations au peuple sénégalais. Félicitations parce que le peuple sénégalais a dit qu'il veut son élection. Et il l'a réussi. Je voudrais dire merci à tous nos alliés pour leur engagement au sommet comme à la base. Mention spéciale au PUR, les jeunes et les moins jeunes. Je voudrais également euh, faire un hommage particulièrement appuyé à, au service de sécurité du PUR, avec à sa tête Ibrahima Je voudrais vous donner une petite anecdote. Nous avons, lorsque nous sommes arrivés dans le Bundu, été particulièrement, euh, on va dire, euh, par des forces de l'ordre. Grâce à, au calme, au professionnalisme de notre équipe de sécurité, nous avons été en toute sécurité. Euh, nous avons pu passer en toute sécurité cette difficulté-là. Je voudrais donc dire merci parce que cela a en grande partie euh, protégé notre caravane. Merci à vous, la presse, qui nous a accompagnés tout au long de ce rythme incroyable. Une campagne avec une moyenne de 450 km par jour en moyenne, avec extinction des feux autour de 5 heures du matin. Je finis par notre candidat, le président Aliou Mamadou Dia. C'est une expérience. C'est aussi une empathie. L'expérience, on l'a expliqué à de nombreuses reprises, d'avoir fait 20 années dans cette prestigieuse institution qui est le PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement, et d'avoir été représentant résident dans plus de 30 pays africains. C'est aussi une empathie. J'ai été particulièrement touché tout au long de cette campagne de le voir serrer dans ses bras des enfants et même des enfants handicapés, handicapés moteurs cérébraux surtout. C'est très touchant et cela montre la capacité de l'homme à avoir de l'empathie pour son peuple. C'est aussi un homme de paix Je pense que vous tous, vous l'avez constaté à travers ces sorties. Ainsi, je voudrais vous remercier, cher candidat et président Aliou Mamadou Dia, pour votre courtoisie et le respect donné à tous, particulièrement la confiance qui vous a amené à me porter à la tête de la direction de la campagne. Nous avons bénéficié d'une excellente atmosphère de travail, grâce, propice en tout cas à de bons résultats. Que Dieu fasse que nous gérions ce pays d'aussi belle manière avec notre programme commun de la coalition, la, euh, le programme qui s'appelle Nité et Natangé. Je terminerai pas sans remercier mon ami mon adjoint Idriss Sambeng, avec qui on s'est crêpé le chignon parfois, mais on a toujours fini par se serrer dans les bras et on a pu vous donner, grâce à Dieu et à la contribution de tous, une campagne dans la paix, une campagne dans la joie. Merci à tous. Merci à notre directeur de campagne, Monsieur Bruno Derneville. Alors, en attendant, je demande à la régie de préparer les vidéos 3D. Nous allons tout de suite donner la parole à notre président de la conférence des leaders, Monsieur Cheikh Alassane Sène. jërëjëf ñi ngi sant yàlla bu baax di julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di am mbégte mbégte mu rëy ci daje bi ñu daje fii mu nekk une rencontre historique ci réewu Sénégal fi mu nar jëm à partir du 24 mars 2024 incha allah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 nga nekk carrefour de toutes les communautés religieuses du Sénégal quand je parle de toutes les communautés religieuses maa ngi ciy jiital jàngu bi et oui le PUR n'est pas un parti religieux le PUR est un parti qui est là pour sauver le Sénégal dans sa globalité et sëriñ bi vous avez eu l'intelligence de choisir et cette intelligence et les mystique d'ailleurs parce que vous avez compris que le cycle bi ñu jëm est un cycle mystique moo tax nga waxoon xale yi nekk di yëngu ci politique ngeen ñëw ma boot leen yóbbaale leen ndax miinuñu yoon bi loolu mooy dëgg nga tànn le président Aliou Mamadou Dia un homme intègre d'une grande intelligence su ma waxee intelligence parce que j'ai reçu sama kër presque tous les candidats bi nga xamante ne dañ ma recalé mais il a été le seul à comprendre ce que man ma bëggoon def ci réew mi et nous allons vous présenter ce projet qui va révolutionner le Sénégal moo tax sëriñ bi dundal sa dund am na njëriñ ci réew mi démb nag démb nag nga yebal capitaine mu am taxawaay yaa ma wax man ak yow ak président Aliou Mamadou Dia nga ne ma lu waay di def na ko def ak sérieux et ma yokkal la ci woon sëriñ bi ci toggaay ma ne benn borom xam-xam bu mag dafa ne le rêve permis mais il faut être sérieux dans son rêve sëriñ bi nag ay coalition am na ci réew mi mais ginnaaw suñu doxee bëccëg nekk ci caravane yi guddi ñu ngi wër di xool les leaders dans d'autres domaines politiques pour leen ci biir coalition bi loolu ñu xamal la ko tey jii le PDS ñun personnellement nous avons pendant plus de trois semaines eu de grands responsables dans le PDS qui sont venus se greffer à la coalition AMD loolu mooy dëgg te yemuñu foofu ndax ce soir encore et demain nous avons décidé de voir tous les grands leaders de ce pays pour wax leen ne ñëw leen ndaxte Serigne Moustapha Sy moom Seydi Hadji Malick moom Serigne Touba moom Cheikh Ibra Fall moom Serigne Moustapha Sy di soppee jàngu bi moom sëriñ Moustapha Sy moom Seydina Limamou lay ndaxte dina feeñ léegi ci projet bi moom Serigne Moustapha si mu Sénégal moom Serigne Moustapha Sy tout court mu Sénégal moom Serigne Moustapha Sy tout court mu Sénégal mu tànnal ñu le candidat du peuple jàmbaar a ngeen di toog ku am xam-xam ku mun a jéggale ku mun a jéllale un homme qui à l'écoute de tous les Sénégalais sans exclusive mooy le président Aliou Mamadou Dia damay damay sàcc nag li nga wax démb dafa wax démb ne xëdd sañse ndax sañse ak sañse ci deretu waa la nekk mu ne xëdd sañse voté mu ne ngoon si ndogu ma yokk ci sañsewaat jubilé benn benn xale bu dégg nag benn xale bu dégg yokkal ci président ne naa fi la palais léegi nag mbokk yi mbokk yi fi may daanelee parce que du ma accaparer parole bi li ma ci am sax doy na sëkk j'ai eu l'honneur aujourd'hui de m'adresser à vous en face de cette éminente personnalité muy Serigne Moustapha si léegi nag mbokk yi wuréewa dem na këng waxi mag dem na nañ taali li fi waaye doom jaay tey dina lamb ndax président Aliou Mamadou Dia egsi na te te lii ñu leen nar a léegi dama bëgg ngeen concentré wu lii nu leen dara wan léegi amul benn candidat bu mus a dem élection du Caire au Cap bu ko mus a defal réewam te président Aliou Mamadou Dia damay jukki rek dama ciy jukki tuuti ndaxte tey ce soir le président Aliou Mamadou Dia va exploser la TFM à QG waa léegi nag léegi nag attention attention attention démb démb démb démb déglu leen bu baax li may bi Macky Sall parce que Macky Sall il n'a pas réussi à nous tirer du lot des vingt-cinq pays les plus pauvres au monde donc il n'a pas le droit de nous choisir un autre candidat loolu mooy benn beneen bi mooy candidat wam amoon na dix-huit mille personnes yu toogoon di ko seetaan ci YouTube ci page yu TFM kooku mooy candidat bi nga xamante ne bultin am ci mbalit bi la jëm kooku suñu candidat moom Aliou Mamadou ja su waree toog ci télé bi di ko exploser ci le programme ñun ñu nekk suñu ay machine wan leen ne Sénégal bu sëriñ Moustapha Sy moo xewle moo tax ma wax ñu tàmbalee xool ces grands projet li ngeen gis ni mooy toolu askan bi qui va révolutionner l'agriculture dans notre pays lii ay techniciens yu mag ci àdduna ñoo ko réalisé mu nekk dans le troisième siècle de toutes les régions du Sénégal avec des industries de transformation miniature connectées à 46 centres de péréquation, connectées à un bureau commercial qui à Dubaï, le maximum de commandes fermes en en Malaisie, en Chine, au le président Aliou Mamadou Dia nara jox les pour yaatal koomu suñu réew fii rek point bi tàmbali kenn musul def lii ci réew mi il est le seul aujourd'hui à réaliser ces grands projets pour changer le Sénégal nous n'avons pas besoin d'un Sénégal émergent nous avons besoin d'un Sénégal devenu une puissance économique de mondiale te moom rek moo ko mën le président Aliou Mamadou Dia lii mooy toolu askan bi mbokk yi suñu jàllee ci projet bi mbokk yi ñu am maintenant le deuxième projet mbokk yi parce que ay jukki rek lañu ko def tey ji ngeen comprendre fan la le président Aliou Mamadou Dia nar jëmee réew mi loolu mooy lu dëkk mbokk yi ñu jàllale ñu avancer dans ce projet waaw waaw dëgg la dëgg la ñun Aliou la ñu bëgg ñun Aliou la ñu bëgg ñun Aliou la ñu bëgg ngeen xool le TGV le TGV le TGV qui va quitter Saint-Louis pour rallier Ziguinchor et qui va desservir toutes les capitales régionales du Sénégal le TGV est là mbokk yi est Saint-Louis dem Ziguinchor la gare de Ziguinchor ñu ngi ko tuddee Essamay pour rendre hommage à Jules François Bocandé moom la ñu tuddee la gare de Saint de de de Ziguinchor Essamay la ñu ko tuddee mbokk yi le TGV ñu ngi ko nar liggéey te état du Sénégal du ci dugal un franc dama bëgg mu leer nous avons décidé que ce TGV que président Aliou Mamadou Dia. wax nañu ci danañ ko réaliser te état du Sénégal du ci dugal un franc ce sont les visions qui mènent le monde et le président Aliou Dia est un homme d'une grande vision une vision généreuse fii ngeen gis si mooy la gare de Kédougou ñu tuddee ko le Dindi Félo xool leen gare bi xool leen le TGV mbokk yi fii mooy la gare de Fatick ñu tuddee ko Bour C'est la gare la plus futuriste au monde que nous allons mettre à Fatick pour développer la ville de Fatick sous l'égide de ce grand président de ce grand Sénégalais le président Aliou Dia fii ngeen gis nii mooy la gare de de Kolda ñu tuddee ko Koli Dabo une des plus merveilleuses gares que nous allons construire dans le Sénégal muy la gare de Kolda mu tudd Koli Dabo nous avancer la gare de Tambacounda moom itamit ñu tuddee ko le Barakunda na lamp yëpp tàkk mbokk yi parce que nous sommes en train de célébrer la victoire de Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum que le Sénégal que le président Senghor avait usurpé en 1959 ngeen gis mbokk yi na taxaw ci lii na taxaw ci lii lii ngeen gis mbokk yi li ngeen gis mbokk yi mooy projet bi ëpp solo ci projet bi ñu nar a lal ndax dañuy teggi li nga xam ne mooy la prison de la prison de Rebeuss moo nekkoon lii xoolal ni ñu la prison de lii moo nekkoon lii mooy la banque des femmes que nous allons initier c'est 580 milliards de francs CFA que le président Aliou Mamadou Dia va mettre à la disposition de toutes les femmes du Sénégal boo jeex na ci réew mi banque baa ngi nii mbokk yi avec la tour Allô Soxna May pour la formation des femmes pour le financement des femmes pour le suivi dans le financement des femmes gàcce yow président Aliou Mamadou Dia lii mooy la banque des femmes qui va remplacer bien évidemment la mairie de Dakar cette banque va traduire définitivement génne toutes les femmes sénégalaises ci ndóol définitivement ñun Aliou la ñu bëgg ñun Aliou la ñu bëgg ñun Aliou la ñu bëgg ñun Aliou la ñu bëgg ñun Aliou la ñu bëgg ñun Aliou la ñu bëgg ñun Aliou la ñu bëgg ñun Aliou la ñu bëgg fii mbokk yi xool mbokk yi may commencé di leen wan les différentes portes d'entrée dans les villes cités religieuses bii mooy porte d'entrée la ville sainte de Ndiassane nii la nar a mel à partir du 24 mars 2024 lii le président Aliou Mamadou Dia nar a apporté mu nekk la porte d'entrée de la ville sainte de la ville de Ndiassane bii nekk la porte d'entrée de la ville sainte de Thiénaba projet Aliou Mamadou Dia bàyyiwul benn famille religieuse ci réew mi lii nag mbokk yi mooy ay Yoff Layeen nous avons décidé de mettre des tentes intelligentes ci seen appel bi nga xamante ne Seydina Limamou Laye moo ko initié ñu def fa tente yu intelligente yi avec les algorithmes de l'intelligence artificielle et nous avons mis un arc qui donne sur la mer pour symboliser l'appel de Seydina Limamou Laye mooy arc bi ngeen gis mooy symbole li la mooy la porte des JMJ pour les chrétiens nous avons décidé d'accord nous avons décidé de mettre cette porte d'entrée à Popenguine mbokk yi lii ay stade multifonctionnel la mais li may bëgg lekk xanaa ma temps bi dafa daf ñu xoj mais li ma bëgg wax leen mooy la président Aliou Mamadou jaa dina eggalewaat cette belle présentation à QG aujourd'hui bu ko kenn manqué ci réew mi maa ngi leen di waxaat nag ne leen ku war a tiit tiital ku war a jaaxle ci yeneen candidat yi jaaxleel ndax le 24 mars 2024 am na borom ba noppi mi ngi tudd Aliou Mamadou Dia maa ngi sant mbooloo mi di leen gërëmaat ndax temps bi daf ñu xooj alxaqu min rabbikum fa man shaa fal yu'min wa man shaa fal yakfur wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu merci président li ñu naan li duuf ci nag bi xajul ci cin bi donc on se donne rendez-vous quartier général pour que le président Aliou Mamadou Dia termine la présentation de ce merveilleux projet alors nous allons donner la parole au secrétaire général national monsieur Cheikh Tidiane asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh maa ngi jiital ci nuyu bi son éminence Serigne Moustapha Sy suñu kilifa suñu wasila suñu président au parti di nuyu maam Cheikh Ahmadou Tijani capitaine di nuyu maam Babacar di nuyu ñoom yaay soxna Fatima soxna Xaja di nuyu le président Aliou Mamadou Dia ak tout le directoire de campagne et tous les responsables du parti di nuyu également tous les alliés de la coalition Aliou Mamadou Dia 2024 wax bi du gudd parce que ñi war a wax ñoo ngi ñëw léegi pour wax xëy na nuyu rek moo tax ñu jël kàddu gi waaye mën na bañ a gudd waaye dañuy ñaan yàlla suñu boroom mu gindi sénégalais yi mu leeral seeni xol ba nga xamante ne nii lii nga xam ne nii moom la suñu kilifa sëriñ Moustapha def ñu mën koo xàmmee tànn ci ki mu war tànn le président Aliou Mamadou Dia mu daje li daje ci moom lépp loo xam ne nii président de la république euh, soxla na ko dajale ci moom muy xam-xam muy jikko bu sell muy yërmande muy am capacité de prendre de la hauteur devant certaines situations et puis mu mën a jégale rax ci dolli mu am xam-xam am compétence am wéeruwaay ñu jógee foofu mu présenté sénégalais yi programme boo xamante ne ni kenn mësu ko Sénégal programme bu commencé par la théorie du changement mooy théorie bi lay wan naka nga mën a def ba développer indi ci ak quatre piliers yemul ci quatre piliers indi quatre leviers d'accélération loolu doyul mu indi léegi wan leen li nga xam ne nii parce que programme mën nañ ne c'est quelque chose de prévisionnel c'est verbal c'est théorique pour confirmer leen engagement pour confirmer leen volonté mu indil leen projection bi nga xam moom la le président Cheikh Alassane doon commenté léegi amul ben parti politique amul benn coalition amul benn candidat même candidat wu régime bi lii nga xam ne nii def nañ ko am nañ ko ci wàllu profil am nañ ko ci wàllu programme am nañ ko ci lii nga xam ne li ñu projeté ñoom amuñ ko donc dañuy ñaan yàlla sunu borom mu gindi sénégalais yi ba choix bi nga xam ne nii Serigne Moustapha def na ko ak yéene bi nga xam ne nii le président Aliou Mamadou Dia am na ko sénégalais yi man ko xàmmee ci ñi ko xamagul ñu ñaanal leen fii ak dimanche sunu borom gindi leen ba ñu xàmmee ko bu ko defee le 24 dimanche affaire bi ay formalité lay nekk te am nañ yaqin que am nañ yaqin c'est une conviction profonde que jot na parce Sénégal fi mu toll on est plus bas que terre on ne peut pas plus aller plus profond que fi ñu tollu donc jóg rekk moom la ñu war a mën a def te dañu génn ci takkusaan gu doy waar takkusaan gu metti bu durer douze ans 12 ans de difficultés, de bâillonnement, d'emprisonnement, de brimade, de pauvreté 12 ans yooyu nag mooy tàkkusaan bu doy war bi ñu jëm te ñu jëm ci timis timis boo xamante ne nii soit sénégalais yëpp nangu li nga xam ne moom la Serigne Moustapha proposé leen proposé wu ko rek waa PUR Sénégal yëpp la ko proposé ñu dugg ci timis gu dal timis gu leer timis gu am Euh, naataange wala ñu choisir dugg ci timis goo xam ne nii timisu ténèbre la timisu difficulté timisu musiba timis bu kenn mënul nettali donc ñu ngi ñaan yàlla sunu borom ba sénégalais yëpp ñu gindi leen ñu mën a dugg ci timis gi nga xam ne nii moom la leen Serigne Moustapha di proposé wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa Merci, Monsieur Chertiganium. Je rappelle, il est général national. Alors, dama leen di may ngeen récupérer tuuti parce que dafa am benn vidéo bu ñuy projeté ñu bëgg yéen ñëpp ngeen teewlu ko ngeen jël ay force parce que après ki war a wax bu waxee da ngeen war a yëngal réew mi on regarde la vidéo et revient vidéo n'est pas prête, fais-moi signe. Elle n'est pas encore prête. C'est bon. Alors, je vous demande de faire un... la Développement, c'est son cœur de métier. Gestion des inondations, son cœur de métier. La médiation, boole xol yi ñu nekk benn mu mel ni ñaari picc nekk ci logo pur bi c'est son cœur de métier maximum de bruit pour le président Aliou Mamadou Dia soxna ummi ndaw ummi ndaw caatu tiiram ak soxna faatu ndaw mi denc Medina Baay ca peggu al islam ba bëlëb ci ne bëlëb ci bàyyi yow yaayi sëtu sàndeene aram faqaa sëtu dëggan sëtu xojjat adam juuf séeréer baa ngi ne Saloum Saloum baa ngi nii ak Minouja merci ñun kenn fay ñu dañoo engagé kenn fay ñu merci merci merci merci maa ngi leen di sant di leen gërëm am mbégte ñëw fii ñu dajee pour terminer sunu campagne bi nga xam ni ça fait semaine ñu ñun ak yéen ñu ànd ci campagne boobu di liggéey liggéey bu am solo ma bëggoon wax rekk ay kàddu yu gàtt di sant sunu président Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha Sy di ko sant bu baax ci accompagnement bi ci gunge bi ci xalaat bi ci bàyyi xel bi ci jàppale bi ci ci ci ci yu jeex parce que damay wax ni lépp moom la ñuy sant bu baax Cheikh Ahmed Tidiane capitaine démb dafa bàyyi yitteem dafa bàyyi ay activitéem ñëw démb ànd ak ñun sur le terrain ci tàngoor bi ci mettitu terrain mu nekk ci ak ñun ba trois heures du matin moom ak maam Babacar ak Pape Cheikh Sarr ak mbokk yépp ma bëggoon profito tey remercier leen yéen les militants du PUR mais aussi sunu alliés yi parce que ñun ak ñoom liggéey nañ liggéey bu am solo oustaz Cheikh wax na ko am nañ plus de quatre-vingts partis politiques ak mouvement yoo xam ni dañu décider ñëw jàppale ñu ànd ak ñun ñu liggéey ànd ak ñun ñu proposer sénégalais yi un projet de société bu kenn mësul présenté waa Sénégal damay wax ni weesu na sax projet de société c'est un projet de civilisation am na allié yu am solo may tudd Cheikh Alassane Sène gis ngeen li mu fi présenté moom mooy le président de la conférence des leaders Bruno Derneville dootuma ko tudd parce que dafa bokk ci ñun ba pare Bruno ba mu ñëwee ak léegi liggéey bu am solo ci déglu ci andi xalaatam ci jàppale ñu loo xam ne ci biir la ak ci biti mu ànd ko ak suñu directeur de campagne adjoint monsieur Idrissa Mbengue ñu liggéey liggéey bu am solo di gërëm sunu secrétaire général national Cheikh Ahmed Tidiane Youm ci engagement di gërëm sunu coordonnateur national Khalifa Ababacar Ndiaye moom it ci taxawaayam may gërëm may gërëm ma bëgg nag ki may gërëm ngeen tàccul ma mooy soxna aji fay massification liggéey liggéey bu am solo ci man duma ko sax gis ci mission yi parce que moom mooy jiitu tout le temps di liggéey liggéey bu am solo sunu EGN bi gère logistique Mbacke Gueye moom it mu liggéey liggéey bu am solo EGN yëpp secrétaire généraux de fédération yëpp secrétaire yi nga xam ne ñoo yor ci au niveau des comi différents comités yéen ñëpp bëgguma tudd ay tur région bu ñu dem taxawu ween ngeen région bu ñu dem département bu ñu dem commune bu ñu dem fekk nañ leen fa ngeen mobiliser liggéey liggéey bu mucc ay ma bëggoon présenter ay excuses ci ñi nga xam ne waroon nañ fa dem te demuñu fa puisque campagne présidentielle naturellement wala normalement trois semaines la ñun na campagne bi ñu def matul sax quinze jours daanaka treize jours la ñu waroon dem ci région wu Sénégal yépp waroon dem ci département yi te gis ngeen coono bi nga xam ne moo ci nekkoon te fu ñu dem gis nañ fa mobilisation bu mucc ay bu mucc ay ma di leen sant di leen gërëm di leen remercier ci mobilisation bi ci région yëpp ci département yëpp ci commune yëpp li ma waroon wax wax naa ko ci campagne bi ba sama baat bi gis ngeen nu mu mel donc parce que li ñu wax ak sénégalais yi mooy solution fu ñu dem xam nañ bu baax li nga xam ne moo fa nekk ay jafe-jafe déglu nit ñi ñu wax ñu ñu wax leen ñun bu ñu sénégalais yi wóoloo yan solution la ñuy andi pour régler seen ay problème amul fu ñu demul te waxuñu fa solution waxuñu fa loo xam ni ku ko dégg di nga ne yéen ñi am nañ ci yéen yaakaar ku leen jox réew mi ngeen defar ko mag ñi dogale nañ ma ne ma yow yaa mën a defar réew mi xale yi dogaale nañ ma dama yow yaa mën a dafa réew mi jigéen ñi jigéen ñi keroog dama dem ci Ziguinchor nekk sama kaw oto benn jigéen daal di xët sécurité bi ne il faut mu wax ak man ma sëgg mu ne ma raa réew mi yépp ci yéen la ñu am yaakaar te loolu te loolu wax nañ ma ko fu nekk yàlla bu yàlla tas yaakaar boobu li ñu waroon wax ci nit walla nitee ak naataange wax nañ ko yéen a ma gën a xam programme bi léegi li ci nekk loolu lañu yéene Sénégal li ci nekk mooy fi ñu bëgg a jële Sénégal ci guuta gi nga xam lañ ko dugal yóbbu ko ci li Cheikh Alassane wax mooy un pays développé réew mu naat réew mu am jàmm réew mu dal réew mu am naataange xam nañ nuñ koy defee def nañ ko feneen ak feneen ak feneen donc bu ñu waa Sénégal wóoloo te gëm naa ne waa Sénégal ñun lañu ñu dinañ tabaxaw réew mi dinañ ko defar dinañ àndiwaat espoir ci jeunesse bi dinañ jàppale jigéen ñi dinañ jàppale jigéen ñi gis ngeen léegi le projet la banque des femmes li ñu wone li Cheikh Alassane wone pàcc bu ndaw la ci li nga xam ne moom lañu ñu war a defaral waa Sénégal bëgg taxaw ndaw ñi wax naa ko li ma xale yi wax sànq ci mbuur mooy ana waa mbuur ana waa mbuur duñu waxante waa mbuur nee nañu aliw yaa ñu teree mbëkki bëggatuma benn doomu Sénégal di mbëkki puisque dinañ defar réew mi andi créer opportunité former xale yi ñu jàng formation technique et professionnelle enseignement supérieur ñu wutal xale yi ay opportunité dama bëgg bu ñu dotee ci réew mi bala ñu koy delloowaat nit ñi di jóge ci biti di ñëw Sénégal di wut si fii liggéey pour tedd fi mais plus sunu doom yi di dem donc bëgg jàppale ndaw ñi loolooy nit ak naataange. bëgg jàppale jigéen ñi wax naa ko autonomisation des femmes wax naa leadership féminin bëgg jàppale béykat yi sama ambition mooy jële béykat bi ci trois cent millions ci trois cent mille yóbbu ko ci trois cent millions et c'est bien possible bëgg réformer béykat yi bëgg leen jàppale en termes de financement yéen ñëpp dégg ngeen ma wax ma wax ci sunu approche de l'agriculture la théorie des trois F la formation le foncier et le financement ñu bëgg a liggéey ci loolu bëgg ci dolli recherche bëgg a jàppale nappkat yi xam ngeen ne sunu géej yàqu na bëgg nañu taxaw ba li yàq sunu géej ñu delloo ko taxaw ak les acteurs de la pêche liggéey ak ñoom bëgg jàppale bëgg a defaraat sunu élevage li ma ci wax dégg ngeen ko ma ñu bëgg liggéey ak artisan yi parce que artisanat dafa am solo ci réew wax naa leen ko li ñu ci xalaat ci programme bi partagé naa ko ak yéen ñu bëgg a jàppale chauffeurs yi ak transporteurs yi parce que le transport dans notre pays est malade le transport dans notre pays est malade bu ñu ñëwee incha allah bëgg nañu bëgg nañu ànd ak les acteurs du transport ñu xalaataat suñu transport gën ko organiser ba acteurs yi nga xam ne ñoo nekk dans le transport gis ci seen bopp may gërëm di sant président sunu président honorable Alassane Ndoye maire de Diender ci engagement boo xam ni jël na ko xaarul xaarul honorable Alassane Ndoye xaarul mot d'ordre moom moo joxe mot d'ordre bi moom moo wane yoon bi ne réew mi bu ngeen bëggee mu baax am na feneen fu ma bokkoon mais lima ma fi gis Aliou Mamadou Dia bii moo mën a defar Sénégal donc ñu koy sant bu baax a baax di ko gërëm transport bi yitteel nañu daje na ak transporteurs yi waxtaan ak ñoom di wax ni yeneen secteur yëpp wax naa artisanat wax naa transport bi dans le domaine de la santé xam ngeen sunu santé nu mu mel nu mu yàqoo dama naan notre système sanitaire est plus malade que notre que les donc loolu war nañ ci taxaw ba waa Sénégal ku bëgg ku feebar mën faju faju boo xam ni faju bu mucc ayib lay doon bu yomb ci yow ñu bëgg taxaw sunu ay mbokk yoo xam ne particulièrement man Aliou Mamadou Dia dama leen bàyyi xel bu baax a baax mooy sunu mbokk handicapé yi dañu bokk ci réew mi dañu bokk ci réew mi dañu bokk ci réew mi ñu war jàppale ñu war leen a jàppale bu baax a baax a baax ba nga li nga xam ne mooy engagement boo xam ne am nañ ko ñu mën ko matale sunu diggante ak ñoom mbokk yi su may lim ñi ñu boole ci sunu programme ñi ñu bëgg a jàppale bëri nañu donc di leen wax ni sunu yittee mooy Sénégal sunu yitte mooy fexe ba Sénégal tegu fu réew yu développé yëpp tegu te mën na nekk sunu réew ñu ñoo koy defaral sunu bopp kenn du jóge bitim réew ñëw di ñu ko defaral du ma fàtte sunu mbokk commerçant yi daje na ak ñoom waa UNACOIS am na lu ñu tëgg am na lu ñu waxtaan bëgguma fàtte bëgguma fàtte sama gaañi mooy boroom jakarta ñoom am na am na lu ma wax ak ñoom am na lu ma wax ak ñoom incha allah bu ñu yàlla tegee suma suma loxo réew mi ci sama loxo incha allah daañu leen taxaw du ma fàtte sama gaañi yi marchand ambulant yi am na lu ma wax ak ñoom am na lu ñu waxante donc donc fàttewuma sama gaañi yi yi parce que parce que yéen dina yaakaaru Sénégal ñu war leen a mettre dans d'excellentes conditions pour ngeen liggéey bu baax a baax du ma fàtte sama gaañi ci sport bi sportif yi parce que am nañ bu baax a baax a baax maa ngi ciy waxtaan barki demb am nañ bu baax a baax politique de sport bi ñu bëgg a andi du ma fàtte du ñu fàtte ci sunu programme mu ngi ci sunu mbokk artistes yi ak musiciens yi parce que parce que ñoom it mais sunu sunu mbokk sunu mbokk su ma nee artiste musicien xam ngeen ne sama gaañi laay wax mooy les rappeurs ci liggéey bu am solo boo xam ne ñu ngi koy liggéey te dégg ngeen ma à plusieurs reprises ma wax ci industrie culturelle loolu bëgg nañ ci incha allah jàppale réew mi développement gaa ñi du ay infrastructure rek développement mooy li ñuy wax mooy nite mooy nite jàppale nit ba mu nekk li nga xam ne moom la bëgg may terminer rek di wax lu ñu amal solo ci sunu programme mooy le retour aux valeurs valeur defar jikko yi parce que réew mi li fi gën a yàqu jikko yi ci la bokk réew kenn du ko defar bu fekkee ne jikko yi baaxul bëgg nañ ànd ak yéen ñu defar jikko yi ba sénégalais yi delluwaat li nga xam ne moom la ñu xam mooy suñu patrimoine en terme ce qu'on appelle les us et nos coutumes ñu delluwaat loolu il faut que nous soyons ancrés dans nos traditions et dans nos valeurs pour aller à la conquête du monde et c'est extrêmement important donc suñu cultures il faut ñu valoriser ko suñu culture il faut ñu génne ko suñu culture il faut ñu sukkandiku ci parce que mooy suñu identité loolu la ñu am bu ñu demee uti leneen buñ ko ci yokkee mu amal réew mi njariñ du ma guddal parce que dañu war a dem léegi am benn émission bu important bu ñu war a dem donc ma di leen sant encore une fois di gërëm ñëpp di leen wax di leen wax incha allah dimanche lan la ñu wax dimanche lu ñu wax xëdd voté ndogu jubilé incha allah incha allah incha allah may wax may wax may foofu laay terminer dama bëgg ngeen ma économiser sama baat pour moo demee fële daal di gën a rajaxe affaire yi donc donc may wax ni may wax ni may wax ni dimanche dimanche bu ñu xëyee bu ñu xëddee voté bu ñu ndogoo jubile léegi nag léegi nag ma bëgg ma bëgg ñun ñëpp ku nekk ci ñun ku nekk ci ñun nga mobiliser wu wax naa ko waxati ko fii ñun rek fi campagne ñun rek a fi VAD ñun rek a fi mobiliser donc loolu loolu loolu loolu dañ ko doon def pour un but bien déterminé et but boobu nag man wax naa gaañi na leen dimanche dimanche les gars dimanche penalty la am penalty gaañi dimanche gaañi dimanche non dimanche dimanche cinquième penalty la am cinquième penalty te dañ ko war a dugal duñu ko raté waruñu ko raté donc donc waaw gaañ waaw li ñu doon def li ñu doon def li ñu doon def depuis depuis depuis li ñuy doon def li ñuy doon def entrainement la woon ay match d'entraînement lañ doon def joué nañ match bi li fi des dugal gagné moo fi des ma bëgg dimanche ñëpp génn ñu voter les ambassadeurs du PUR vous savez ce que vous devez faire je vous demande de sortir dimanche nous allons aller voter massivement et nous allons gagner et nous allons célébrer et nous allons remettre le pays nous allons remettre le pays au travail nous allons ramener l'espoir nous allons ramener la confiance Nous allons faire de ce pays le plus grand pays en Afrique. Nous allons bâtir ce pays et je vous remercie. Merci beaucoup. mu ngi ci yi alors dañoo bëgg ñëpp voté am na ku waddal pièce d'identité am Mouhamad Koulibaly Mouhamad Koulibaly né le 26 1 2000 2017 Mouhamad le docteur Mouhamed Diallo Khalifa Babacar Sall président parti TAW Déthié Ndiaye président parti UPM léegi nag dañuy jox kàddu gi à Mame Cheikh Ahmed Tidiane di capitaine intention méchante qui, de par sa simple existence, plonge le monde dans une transe malhonnête, un piège moral qui, aussi ironique soit-il, semble être une pierre fondatrice de nos fausses démocraties. qu'elles nous disent une chose pour ensuite en parce qu'elles doivent représenter la volonté du peuple pour ensuite représenter la source de leur parce qu'elles sont à la merci des manipulateurs, aussi incompétents soient-ils. fausses, car elles sont la parfaite illusion du choix. Car trop souvent, nos dirigeants ne sont pas choisis dans l'intimité des isoloirs, mais plutôt choisis dans des bureaux sombres entre personnes au cœur beaucoup plus sombre. car elles sont une violation du protocole car elles sont céleste qui n'accorde le droit de parole ou le droit d'action qu'à ceux qui, de le droit d'action et le droit de parole qu'à si, qu'à ceux de par leur action et leurs résultats ont prouvé qu'ils en ont le mérite et la légitimité. Nous ne sommes pas, par contre, venus pour remuer les secrets des corps célestes. Notre priorité aujourd'hui se place bien fixe face à nous, face à notre futur, face à nos rêves, face à cette utopie que nous cherchons à accomplir pour nos takanères de demain. Nous vivons nous vivons dans un climat moral toxique où la vérité cesse d'être objective, mais devient une question de préférence, où les faits, peu importe leur véracité, sont acceptés ou rejetés selon l'humeur de nos grands trompeurs, où le sachant est ignoré, mais l'idiotie est célébrée. Où l'engagement et les accomplissements, qu'ils soient citoyens, qu'ils soient intellectuels, qu'ils soient sociaux ou culturels, sont dévalorisés au profit de comédies manipulatrices et de diversions assourdissantes. Afrique, mon Afrique. ta complaisance d'aujourd'hui me chagrine, car je suis conscient de ton intégrité d'hier. Je suis conscient de la droiture qui a forgé tes fils et trempé tes filles. Je suis conscient du temps où l'Africain avait plusieurs valeurs à, ton, à, à son existence, euh, à son existence. Bon. et non un simple prix. Je suis conscient des politiques de déstabilisation sociale. Je suis conscient des politiques soi-disant d'émancipation. Je suis conscient des stratagèmes et des subterfuges. C'est une rediffusion, nous contre eux. pour ceux qui préfèrent diviser pour mieux régner. Les grands trompeurs sont nombreux diaboliquement. Ils sont riches viscéralement. Et ils nous détestent profondément. Ils nous dorlotent et nous cajolent avec de grands mots et nous font croire en Eldorado fabriqué spécifiquement pour nous exploiter, pour enfin nous tuer. Un mirage mis en place pour leur assurer une main-d'œuvre quasi gratuite et l'enrichissement de leur patrimoine génétique. Ils nous étranglent sur tous les plans pour nous forcer à risquer le tout pour le tout. Et en fin de compte, c'est nous qui perdons. c'est nous qui nous retrouvons dans l'incapacité de répondre à nos besoins. C'est nous qui nous retrouvons avec des centaines de morts sur nos plages. Afrique, mon Afrique, ta complicité à ta propre annihilation, mes cœurs, cette facilité que tu accordes sans condition aux meurtriers de tes enfants, à impunis dans leurs esprits et dans leurs cœurs. ces ignares qui te sont redevables pour tout leur luxe et leur confort et qui pourtant te haïssent pour ces mêmes raisons. Ces charlatans qui, à travers leurs médias, leurs réseaux sociaux, abrutissent violemment ces graines qui doivent grandir en d'énormes forêts de sagesse et de savoir. Il est temps, à Il est temps de choisir ta destinée. Il est temps de prouver que ta fierté et ta grandeur ne sont pas que mythes et légendes. Il est temps que l'Afrique travaille pour l'Afrique. Car rien n'est plus ridicule en ce monde que le refus d'ouvrir les yeux pour ensuite demander qui a été la langue. Wassalamu fi teew ñëpp di leen ziar di leen baalu àq te di leen baal àq di leen massawu coono ah di leen ndokkee ci weer bi ngeen baal ma kàddu gi gudd na ba pare waaye dafa fekk ni mbir yaa ko laaj àdduna bi dafa am fu mu toll dafa am fu mu jëm xëy na sax boobu ba léegi maa ngi koy wax ci ñi nga xam ni xëy na dinañ faral di waxtaan adduna gi ñëpp a xam importance bi élection yi am ba mu des sénégalais yi ko war a voté li tax ma wax ko xam naa ko ndax ñi jël seeni soldat dugal Cap Vert ñi jël seeni soldat dugal Côte d'Ivoire ndax di waajal fii lu fi nar a xew yëg nañu ko kon nag ku xeeb sa mbir am na ko ko xeebul li wolof di wax alal lu ko sàggan ku farloo koy jëriñoo ah. waaye de damay yaakaar ni dafa am farata goo xam ni ku bëgg sa bopp bëgg sa réew danga ko adopté li ma dégg benn waay wax ko mu ne réew sàngam de coow ji bëri na waaye li la ñëpp nawee li ñu rawee ñépp mooy ci réew ma góor a nga jigéen a nga fa xale nga fa jullit nga fa chrétien nga fa leneen ak leneen a nga fa waaye gis nga bu dëkk bi soxlaa ñu ne ñoom loolu yëpp dàqu na ci réew mi lañuy ñu bokk kon réew mi lañuy ñuy xeexal façon boobu ku ko adopté sa réew sa réew baax moo tax bu ñuy wax politik li jar a bàyyi xel dafa bëri ndax malheureusement Sénégal dañu xaw a ñeme àq te àq ay daaneel réew àq dafay daaneel réew ñaata at 64 ans mu nuy jógee A jëm B ñëpp ngi jëm kanam di dem ñu ñoo ngi taxaw di sur place est-ce que jaaduwul jaaduwul yàlla nag dafa def nit loo ñàkkul defoo yitteem. munoo xaar njëriñam nit loo ñaqul defoo yitte bul xaar njëriñam du ñu egsi ba fii xeex li ñuy xeex di dañoo bëgg changement pare jëlaat ko teg ko ci ay loxo yu koy yàqaat loolu nag seen décision la décision wu peuple bi la yàlla nag loo ñaq mu fay la ko ku liggéey ba pare ñu fay la nga ñàngal nga xam ne yaa ko liggéey lii la yàlla def kon nag kàddu yu jarta guddal ndax li fi farata kilifa yi fi toog wax nañ ko ba pare yàlla xam ne ñàkk pexe rek waaye kàddu gi mënoon na ñàkk ah di santaat ñëpp di ñaan yàlla lii ñu fi daje tey ah yàlla yàlla barkeel yëpp yàlla na yàlla barkeel tànk yi yàlla na yàlla barkeel taxawaay yàlla na yàlla barkeel yéene itam mottali ko ah yàlla yàlla faj aajo yépp ah te loolu sax li Serigne Cheikh daan wax ne ñaan fajul soxla dafay dëgëral yaakaar fan yi passé maa ngi ci waxtaan ak Pape Cheikh mi mën na ko liy faj yaakaar li li liy dëgëral yaakaar boole ci faj soxla ga mooy takk sa daal dem doxi yitte ga ñoo ci des suñu kilifa gi toog sama góor gi la ko waral yëpp def na ko ba teg ci moom mi xam tànn ki mu tànn jox ñu def li mu war a def yëpp moom mit campagne li mu ko war a campagne yëpp teg programme bi mu war a teg li mu war a def yëpp mu def ko ah wax bu àgg dafa ko moom kon nag ñu yemale fa kàddu gi wasalaamaaleykum wa rahmatullah Jërëjëf. Merci beaucoup à notre cher capitaine. Je pense que euh, bi du doy waaye balaa ñu koy tëj dañuy rekk wëlbatiku sàkku ñaan ci sëriñ bi sëriñ bi si ñaanal ñu assalaamu aleykum responsable yi ñu aju ci directoire beeg tabaarakallahu te invité yi ngeen fii am itam ñu nuyu leen góor ak jigéen mag ak ndaw fa tabaarakallahu li rafet yépp wax nañ ko ba noppi dama daan dégg nag ci wàllu sport moo xam football la wala beneen discipline bu mu mën a doon ñuy wax ni que que le meilleur gagne waaw mais ñun li ñu préféré moo di être les meilleurs waaw waaw bu dee gañe nag ci loxo yàlla la nekk moo tax bàkku teel na saalit itam teel na waaye li ma gëm dafa am sama wayjur bu jigéen bu ñuy wax soxna sa fi dem benn ñaan rekk la daan ñaan yàlla nañu yàlla defal la gën te gënal waaw kon nag ñu nit boobu ñaan rekk la ñuy ñaan yal nañu yàlla defal la gën te gënal moo di le soir du 24 ah kenn ku ci nekk sa xol bég ndax li la taxoon di sonn yëpp yàlla jox na la ko waaw moo di sunu mbokk mi Alioune bi yàlla jox ko li ñu ko yéene ba tax ñu doon ko tànn moo collaborateur yi moo am yépp yàlla sàmm leen yàlla jox leen ndamu àdduna ak wàllaaxira mu mel ni itam mag ñi dañuy wax ni ndam baax na waaye sag moo ko ëpp doole ndax ndam mën na am mu yem ci benn bés waaye sag giiru dund la mu mel ni mag ñi nag defal nañ ñu sag ba noppi kon nag ndam bi moo ci des ñun ñooy taxawal sunu bopp fexe ba ndam bi ñëw incha allah kon nag ñu ngi gërëm képp ku sonn ci yëf yi tàmbalee ko ca commencement ba ba léegi doonte temps bi doyul waaye li ngeen mën def ngeen ko wax dëgg yàlla suivre nañ leen suivre nañ leen ca début ba ba ci fin bi tey fu ngeen jaar fu ngeen dugg lu ngeen waxante fa tabaarakallahu nit ñi leen fi accueillir kenn ku ne fa mu jaar ak yéen ak la mu wax ak yéen fa tabaarakallahu kon nag yàlla bu yaakaar a tas yàlla nañu ko muurloo te képp ku ñu ko yéene ñu bokk ko ak yow fa tabaarakallahu mu ngi guddi te comme Alioune dafa am rendez léegi te wax dëgg yàlla ah ku woor ba ngoon boo sañoon wax dëgg yàlla ah xaw a dimbale sa bopp tuuti waaye ma di leen yëgal ni amul dara lu ñuy def ñun te yàlla du ko inscrire ci jaamu yi mu bind waaw bu ngeen nekkoon fii ba fajar di tëgg ma di leen waatal ci alquran ni moog naa fi la benn la waaw ndax sëriñ Babacar Sy moo tëju ak ay homme politique ñuy waxtaane wallu réew am góor gu ñëw njëkk ko fëgg ni ko timis jot na mu ni pat toogaat ba ca kanam kooku ñëw fëggaat ko ni ko timis bi jot na mu ni ko ci julli la ñu nekk waaw ndax lu defar sunu réew la ñuy waxtaanee te lu ko ëpp amu fi waaw ndax bala nga ni naam ne fa waaw bu ko defee kon nag ah yàlla bu yaakaar kenn ku ne yàlla yàlla defal la sutura ak tawfiq ngeen dellu ca kër ya ci jàmm fekk fa ñëpp ci jàmm te lu ngeen sonn moo xam ci wàllu jaamu yàlla gi la wala ngeen sonn ko ci wàllu seeni campagne yàlla na leen yàlla jox ci ndam lu ko ëpp fuuf ci barke mag ñi ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa kon nag loolu rek lañ ci doon sànni ko defee kon nag ah, yàlla moom yépp mu ngi ko tiim ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa ñu ñaanal ku fi ñëw képp koo xam ni itam xëy na ci biir liggéey bi dara fekk na la ci itam ñu ñaanal la yàlla yàlla bi nga xam ni mooy nangu lu ne mu defal la lu ëpp sa njort yàlla faj feebar yi yàlla faj aajo yi yàlla yërëm ñi wëy ji seen boroom te yàlla sàmm wayjur yi sàmm doom yi sàmm li ñu am yépp incha allah ne ku nekk jàng fatiha naa gannaaw bi ñu waxee yooyu ñu wax le directeur de campagne daf ma wax wax bu am solo sànq waaw moom Bruno bi fa tabarakallahu te moo ñun li ñu nekk amul frontière waaw musulman chrétien animiste yëpp ñëpp yàlla leen jaboote waaw muy xaadir muy murit muy tiijaan muy laayeen muy janaba muy ñaseen ñëpp ñëpp njabootu yàlla lañ ñook ñoo ma ko bokk bu ko defee ko nag ku nekk jàng fatiha boole ko ak salaatu ala nabi ñu ñaanalante ci ñun ñëpp waaye ñaan gi ci ëpp doole mooy ñu ñaan yàlla defal ñu ndam ci dimanche incha allahu te ñu ngi ci am yaakaar yàlla bu yaakaar tas wasalaamualeykum wa rahmatullah courage, les passions de chaque parent sur l'avenir que nous bâtissons pour nos enfants. En tant que professionnel engagé, je mesure l'importance de la justice sociale, du respect des libertés individuelles et de la dignité de chacun. Je suis sénégalais, profondément attaché à notre terre, à notre identité, à nos traditions, nos us et coutumes, en un mot, à nos propres valeurs. les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, qu'ils soient économiques, sociaux et ou environnementaux, me touchent au plus profond de mon cœur. Le système des Nations Unies m'a offert la chance et l'opportunité de servir mon continent pendant 20 pour trouver des solutions au développement de l'Afrique. Aujourd'hui, il est temps pour moi de servir notre chère nation, le Sénégal. je ressens, comme vous, le besoin urgent de changement, de redonner espoir et dignité à toutes et à tous nos compatriotes. L'élection présidentielle du 24 mars 2024 représente un tournant décisif pour notre chère nation. Ce n'est pas seulement un choix politique, c'est surtout un choix de société. un choix de civilisation. Ce n'est pas un choix pour sanctionner, mais pour avancer tous ensemble. Continuerons-nous sur le chemin de l'incertitude ou choisirons-nous ensemble la voie de la renaissance, de la prospérité partagée et de la paix durable? Je suis prêt à remettre le Sénégal en ordre. Et au cœur de mon engagement se trouve une conviction inébranlable, placer l'humain au centre de toutes nos actions. Nit ak humanisme et prospérité sont les piliers sur lesquels je souhaite bâtir notre avenir. Ce n'est qu'en chaque individu, en respectant sa dignité et en répondant à ses besoins fondamentaux que nous pourrons aspirer à une vie meilleure pour tous. Un Sénégal où l'humain est respecté, valorisé et épanoui. Un Sénégal prospère, où chacun peut réaliser son potentiel et contribuer au bien-être collectif. Oui, je m'engage à unir notre nation dans la fierté et la dignité. Mon combat, c'est celui de la justice sociale, de l'équité du développement durable pour que chaque Sénégalaise et chaque Sénégalais puisse vivre ses rêves dans une nation juste. Cet engagement, c'est le sens de ma candidature. Pour vous et avec vous, je me bats pour réaliser ce projet de société pour le Sénégal que nous aimons tant. C'est donc avec cette vision claire, ce déterminisme fort et cet engagement renouvelé que je me présente à vous. Moi, Aliou Mamadou Dia, prêt à travailler avec vous, à vous écouter et à agir pour le bien de notre nation. Au nom du peuple sénégalais, fort, digne et souverain. Aliou Mamadou Dia. dund lu jigéen ñi bëgg. lu ndaw ñi di xaar. askanu Sénégal lu ngeen di xaar ci njiitu réew mii di ñëw. dund gu gën. dund gu lu jigéen ñi bëgg. lu ndaw ñi di xaar. dund gu gën. lu askanu Sénégal mérito. dund gu gën. lu ngeen di xaar ci njiitu réew mii di ñëw. dund gu gën. dund gu gën ak Aliou Mamadou Dia. dund lu jigéen ñi bëgg. lu ndaw ñi di xaar. dund gu gën. lu askanu Sénégal mérito. dund gu gën. lu ngeen di xaar ci njiitu réew mii di ñëw. dund gu gën. dund gu gën ak Aliou Mamadou dund gu gën ak Aliou Mamadou lu jigéen ñi bëgg. lu ndaw ñi di xaar. lu askanu Sénégal mérito. dund gu gën. lu ngeen di xaar ci njiitu réew mii di ñëw. dund gu gën. dund gu gën ak Aliou Mamadou Dia. dund lu jigéen ñi bëgg. lu ndaw ñi di xaar. dund gu gën. lu askanu Sénégal mérito. dund gu gën. lu ngeen di xaar ci njiitu réew mii di ñëw. dund gu gën. dund gu gën ak Aliou Mamadou lu jigéen ñi bëgg. lu ndaw ñi di xaar. lu askanu Sénégal mérito. dund gu gën. lu ngeen di xaar ci njiitu réew mii di ñëw. dund gu gën. dund gu gën ak Aliou Mamadou dund gu gën ak Aliou Mamadou lu jigéen ñi bëgg. lu ndaw ñi di xaar. lu askanu Sénégal mérito. dund gu gën. lu ngeen di xaar ci njiitu réew mii di ñëw. dund gu gën. dund gu gën ak lu jigéen ñi bëgg. lu ndaw ñi di xaar. lu askanu Sénégal mérito. dundu gu gën. lu ngeen di xaar ci njiitu réew mii di ñëw. dundu gu gën. dundu gu gën ak Aliou Mamadou Dia. dundu lu jigéen ñi bëgg. lu ndaw ñi di xaar. lu askanu Sénégal mérito. dund gu gën. lu ngeen di xaar ci njiitu réew mii di ñëw. dund gu gën. dund gu ak Aliou Mamadou lu jigéen ñi bëgg. lu ndaw ñi di xaar. dund gu lu askanu Sénégal mérito. lu ngeen di xaar ci njiitu réew mii di ñëw. dund gu gën. gën ak Aliou Mamadou lu jigéen ñi bëgg. lu ndaw ñi di xaar. lu askanu Sénégal mérito. dund gu gën. lu ngeen di xaar ci njiitu réew mii di ñëw. dund gu gën. dund gu gën ak Aliou Mamadou Dia. dund lu jigéen ñi bëgg. lu ndaw ñi di xaar. dund gu gën. lu askanu Sénégal mérito. dund gu gën. lu ngeen di xaar ci njiitu réew mii di ñëw. dund gu gën. dund gu gën ak Aliou Mamadou Dia. dund lu jigéen ñi bëgg. lu ndaw ñi di xaar. lu askanu Sénégal mérito. dund lu ngeen di xaar ci njiitu réew mii di ñëw. dund gu gën. dund gu lu jigéen ñi bëgg. lu ndaw ñi di xaar. lu askanu Sénégal mérito. gën. lu ngeen di xaar ci njiitu réew mii di ñëw. dund gën. dund gu gën ak lu jigéen ñi bëgg. lu ndaw ñi di xaar. lu askanu Sénégal mérito. dund gu gën. lu ngeen di xaar ci njiitu réew mii di ñëw. dund gu gën. dund gu gën ak Aliou Mamadou dund gu gën ak Aliou Mamadou lu jigéen ñi bëgg. lu ndaw ñi di xaar. lu askanu Sénégal mérito. dund gu gën. lu ngeen di xaar ci njiitu réew mii di ñëw. dund gu gën. dund gu gën ak Aliou Mamadou lu jigéen ñi bëgg. lu ndaw ñi di xaar. lu askanu Sénégal mérito. dund gu gën. lu ngeen di xaar ci njiitu réew mii di ñëw. dund gu gën. dund gu gën ak Aliou Mamadou Dia. dund lu jigéen ñi bëgg. lu ndaw ñi di xaar. dund gu gën. lu askanu Sénégal mérito. dund gu gën. lu ngeen di xaar ci njiitu réew mii di ñëw. dund gu gën. dund gu gën ak lu jigéen ñi bëgg. lu ndaw ñi di xaar. lu askanu Sénégal mérito. dund gu gën. lu ngeen di xaar ci njiitu réew mii di ñëw. dund gu gën. dund gu gën ak Aliou Mamadou Dia. dund lu jigéen ñi bëgg. lu ndaw ñi di xaar. dund gu gën. lu askanu Sénégal mérito. dund gu gën. lu ngeen di xaar ci njiitu réew mii di ñëw. dund gu gën. dund gu gën ak Aliou Mamadou Dia. dund lu jigéen ñi bëgg. lu ndaw ñi di xaar. dund gu gën. lu askanu Sénégal mérito. dund gu gën. lu ngeen di xaar ci njiitu réew mii di ñëw. dund gu gën. dund gu gën ak Aliou Mamadou lu jigéen ñi bëgg. lu ndaw ñi di xaar. lu askanu Sénégal mérito. dund bu gën. lu ngeen di xaar ci njiitu réew mii di ñëw. dund bu gën. dund bu gën ak Aliou Mamadou Dia. dund lu jigéen ñi bëgg. lu ndaw ñi di xaar. dund gu gën. lu askanu Sénégal mérito. dund gu gën. lu ngeen di xaar ci njiitu réew mii di ñëw. dund gu gën. dund gu gën ak Aliou Mamadou Dia. dund dund gu gën ak Aliou Mamadou Dia. dund lu jigéen ñi bëgg. lu ndaw ñi di xaar. lu askanu Sénégal mérito. dund gu gën. lu ngeen di xaar ci njiitu réew mii di ñëw. dund gu gën. dund gu gën ak Aliou Mamadou Dia. dund lu jigéen ñi bëgg. lu ndaw ñi di xaar. dund gu gën. lu askanu Sénégal mérito. dund gu gën. lu ngeen di xaar ci njiitu réew mii di ñëw. dund gu gën. dund gu gën lu jigéen ñi bëgg. lu ndaw ñi di xaar. dund gu gën. lu askanu Sénégal mérito. dund gu gën. lu ngeen di xaar ci njiitu réew mii di ñëw. dund gu gën. dund gu gën ak Aliou Mamadou lu jigéen ñi bëgg. lu ndaw ñi di xaar. lu askanu Sénégal mérito. dund gu gën. lu ngeen di xaar ci njiitu réew mii di ñëw. dund gu gën. dund gu gën ak Aliou Mamadou Dia. dund lu jigéen ñi bëgg. lu ndaw ñi di xaar. lu askanu Sénégal mérito. dund gu gën. lu ngeen di xaar ci njiitu réew mii di ñëw. dund gu gën. dund gu gën ak Aliou Mamadou lu jigéen ñi bëgg. lu ndaw ñi di xaar. lu askanu Sénégal mérito. dundu gu gën. lu ngeen di xaar ci njiitu réew mii di ñëw. dundu gën. dundu gu gën ak lu jigéen ñi bëgg. lu ndaw ñi di xaar. dund gu gën. lu askanu Sénégal mérito. dund gu gën. lu ngeen di xaar ci njiitu réew mii di ñëw. dund gën. dund gu gën lu jigéen ñi bëgg. lu ndaw ñi di xaar. dund gu gën. lu askanu Sénégal mérito. dund gu gën. lu ngeen di xaar ci njiitu réew mii di ñëw. dund gu gën. dund gu gën ak Aliou Mamadou Dia. dund dund gu gën ak Aliou Mamadou Dia. dund lu jigéen ñi bëgg. lu ndaw ñi di xaar. lu askanu Sénégal mérito. gën. lu ngeen di xaar ci njiitu réew mii di ñëw. dund gu ak Aliou Mamadou Dia. dund lu jigéen ñi bëgg. lu ndaw ñi di xaar. dund gu gën. lu askanu Sénégal mérito. dund gu gën. lu ngeen di xaar ci njiitu réew mii di ñëw. dund gu gën. dund gu gën ak Aliou Mamadou Dia. dund lu jigéen ñi bëgg. lu ndaw ñi di xaar. dund gu gën. lu askanu Sénégal mérito. dund gu gën. lu ngeen di xaar ci njiitu réew mii di ñëw. dund gu gën. dund gu gën ak Aliou Mamadou Dia. dund dund gu gën ak Aliou Mamadou Dia. dund lu jigéen ñi bëgg. lu ndaw ñi di xaar. dundu gu gën. lu askanu Sénégal mérito. dundu gu gën. lu ngeen di xaar ci njiitu réew mii di ñëw. dundu gu gën. dundu gu gën ak Aliou Mamadou Dia. dundu lu jigéen ñi bëgg. lu ndaw ñi di xaar. dund gu gën. lu askanu Sénégal mérito. dund gu gën. lu ngeen di xaar ci njiitu réew mii di ñëw. dund gën. dund gu gën lu jigéen ñi bëgg. lu ndaw ñi di xaar. dund gu gën. lu askanu Sénégal mérito. dund gu gën. lu ngeen di xaar ci njiitu réew mii di ñëw. dund gu gën. ak Aliou Mamadou Dia. dund gu lu jigéen ñi bëgg. lu ndaw ñi di xaar. dund gu gën. lu askanu Sénégal mérito. dund gu gën. lu ngeen di xaar ci njiitu réew mii di ñëw. dund gu gën. dund gu gën ak Aliou Mamadou Dia. dund lu jigéen ñi bëgg. lu ndaw ñi di xaar. lu askanu Sénégal mérito. dund gu gën. lu ngeen di xaar ci njiitu réew mii di ñëw. dund gu gën. dund gu gën ak Aliou Mamadou Dia. dund lu jigéen ñi bëgg. lu ndaw ñi di xaar. dund gu gën. lu askanu Sénégal mérito. dund gu gën. lu ngeen di xaar ci njiitu réew mii di ñëw. dund gu gën. gën ak Aliou Mamadou Dia. lu jigéen ñi bëgg. lu ndaw ñi di xaar. dund gu gën. lu askanu Sénégal mérito. dund gu gën. lu ngeen di xaar ci njiitu réew mii di ñëw. dund gu gën. dund gu gën ak Aliou Mamadou Dia. dund lu jigéen ñi bëgg. lu ndaw ñi di xaar. dund gu gën. lu askanu Sénégal mérito. dund gu gën. lu ngeen di xaar ci njiitu réew mii di ñëw. dund gu gën. dund gu gën ak Aliou Mamadou dund gu gën ak Aliou Mamadou lu jigéen ñi bëgg. lu ndaw ñi di xaar. dund gu gën. lu askanu Sénégal mérito. dund gu gën. lu ngeen di xaar ci njiitu réew mii di ñëw. dund gu gën. dund gu gën ak Aliou Mamadou Dia. dund dund gu gën ak Aliou Mamadou Dia. dund lu jigéen ñi bëgg. lu ndaw ñi di xaar. dund gu gën. lu askanu Sénégal mérito. dund gu gën. lu ngeen di xaar ci njiitu réew mii di ñëw. dund gu gën. dund gu gën ak Aliou Mamadou Dia. dund lu jigéen ñi bëgg. lu ndaw ñi di xaar. dund gu gën. lu askanu Sénégal mérito. dund gu gën. lu ngeen di xaar ci njiitu réew mii di ñëw. dund gu gën. dund gu gën ak Aliou Mamadou Dia. dund lu jigéen ñi bëgg. lu ndaw ñi di xaar. lu askanu Sénégal mérito. dund gu gën. lu ngeen di xaar ci njiitu réew mii di ñëw. dund gu gën. dund gu gën ak Aliou Mamadou Dia. dund lu jigéen ñi bëgg. lu ndaw ñi di xaar. lu askanu Sénégal mérito. dund bu gën. lu ngeen di xaar ci njiitu réew mii di ñëw. dund bu gën. dund bu gën ak Aliou Mamadou Dia. dund lu jigéen ñi bëgg. lu ndaw ñi di xaar. dund gu gën. lu askanu Sénégal mérito. dund gu gën. lu ngeen di xaar ci njiitu réew mii di ñëw. dund gu gën. dund gu gën ak Aliou Mamadou Dia. dund lu jigéen ñi bëgg. lu ndaw ñi di xaar. dund gu gën. lu askanu Sénégal mérito. dund gu gën. lu ngeen di xaar ci njiitu réew mii di ñëw. dund gu gën. dund gu gën ak Aliou Mamadou Dia. dund dund gu gën ak Aliou Mamadou Dia. dund lu jigéen ñi bëgg. lu ndaw ñi di xaar. lu askanu Sénégal mérito. dundu gu gën. lu ngeen di xaar ci njiitu réew mii di ñëw. dundu gën. dundu gu gën ak lu jigéen ñi bëgg. lu ndaw ñi di xaar. lu askanu Sénégal mérito. dund gu gën. lu ngeen di xaar ci njiitu réew mii di ñëw. dund gu gën. dund gu gën ak Aliou Mamadou Dia. dund